الله الرحمن الرحيم يا همة الشيخ اهضري لنا بهذا المهدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالذخر الحمد غور بعيد ليس يدركه إلا الخليفة من قاس ومن داني والله لو فهم الجيلي همدهم ما كان عن حمدهم بالغافل الله والله لو فهم الجيلي همدهم ما كان عن حمدهم بالغافل الله ولذلك أثار سيدي ومولاي الشيخ إبراهيم نياس قال لك الحمد مولانا على كل نعمة ومن أعظم النعماء قولي لك الحمد الحمد لله على على التجمع في الله على التذاكر في الله على الحضور في الله مع الله لله الصلاة والسلام على رمز الأخوة والمحبة سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله ورضي الله عن خاتم الأولياء بإجماع الأولياء مولانا أحمد بن محمد التجاني رحم الله أبا الفيوضات مدد الأمداد وساقي أهل الوصل والوصال في كل زمان ومكان شيخي شيخ الحاج إبراهيم نياس حامل راية الإرشاد ومحيي سنة الإباد وموضوع الزمان في كل مكان إخوتي أنصار دين الله أحباب رسول الله أحباب الشيخ التجاني أحباب صاحب الفيضة التجانية الشيخ إبراهيم نياس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الفيضة الكبرى التي بشر بها الشيخ التجاني بقوله تاتي فيضة على أصحابي والناس في غاية ما يكونون عليه من الضيق والشدة أصحاب الفيضة allati xaqaqa allahu wuquaha wa xaqaqa biha azwaaqakum fi lmaarifati fillah alfaydatu allati agraqakum allahu fi bahriha xatta fuqtum kulla aarifin sawaun jiliyan aw ibna faridin aw junaydiyan aw xaatamiyan fa laqad waqaat alfaydatu bi waadin munjazin mundu xamsin wa sab'ina sanatan ولن تزال تتقوى إلى يوم الدين هي الفائدة الكبرى فلا متقدم يهوم حواليها ولا متأخرا وخص بها الكولى وخص بها المولى مدينة كولخ فكانت لها دون المدائن مظهرا ثم ما هي الفيضة alkalimatu maxuusatun min faada yafiidu faydan wa faydatan wa fayadaanan kama taqulu jaaza jawzan wa jawzan wa jawaazan wa jawazaanan wa jara jiriyatan wa jarayan wa jiriyaanan in juzta dawra liwa sharqiya lubnaana fakki rubu abi dam in laysa mustaana jawzan jawzan jawazan wal majaza wa qad yajri jiriyata jiriyyin wa jiryana tilka al fayda mawdu'una al yawma amiqun jiddan wa kayfa na'rifu an haqiqatiha wa kayfa na'rifu an haqiqati al fayda allati kana al awliya as sabiquna yushiruna ilayha bidayatan min al imam al shibli haythu sami'a sha'iran yaqul usaa'ilu an salma fahal min muxabbirin yakunu lahu ilmun biha ayna tanzilu fa xarra marshiyan alayhi qarra shibliyu maghshiyan alayhi li simaa'ihi haadha saa'il usaa'ilu an salma fa hal min muxabbirin yakunu lahu ilmun biha ayna tanzilu allahu ya'lamu ayna tanzilu salma wa mal mushaaru ila haadihi salma wal fayda haadihi ashaara ilayha wa ila ahliha abu madyan al-ghaws حيث يقول قوم كرام السجايا أينما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا tilka alfayda fa man shaa yaatiha qubayla mamatihi wa man shaa naawaha ka ahli shaqaa'i fa man shaa yaatihi qubayla mamatihi wa man shaa naawaahu ka ahli shaqaa'i qaala cheikhu fa man jaa'ana fa marhaban bi majiihi wa man faatana yakfihi an laa nafuutuhu wa nuxayyi fadilata cheikh alqaa'id alkabir axaana fillah الرئيس السابق لدائرة أنصار الدين فقد حضر جلستنا اليوم أستاذ محمد نيان أهلا بكم وبما معكم من الخبرة والتدرب في هذه الفائدة ولا زلتم وقد كنتم والحمد لله من السابقين الأولين في هذه الفائدة ولم تزالوا تحدثون تحضرون الجلسات كلها جلسات ذكرى رسول الله جلسات ذكرى الشيخ تجاني جلسات ذكرى الشيخ إبراهيم nasalullaha subhanahu wa taala an yulhiqakum sidqan wa haqqan fi zumrati cheikh ibrahima radiallahu anhu مضت فجرت من ذكرهن دموع فهل لنا ألا ألا هل لنا يوما من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع أسلم جيت والحمد لله مع أخوين كريمين الأستاذ الشيخ طبصار قد غادر من أمق مدينة الشيخ ليحضر هذه الجلسة wal ustaaz ali so نحيي جميع الحاضرين بالاختصار هذه كليمة عربية ألقيتها إرضاء للمستعربين وبما أن الشيخ إبراهيم كان يتفاخر بالعربية كأنه كان يقول إنها لغة القرآن ألف في كتابا ألف في اللغة العربية كتابا سماها بإنها لغة القرآن ولذلك نحن لا نبدأ محاضرة ولا ذكرى رسول الله إلا وافتتحناها bi e, kulaymatin kasira min al arabia irdaan lil mustaaribin mbooloo mi ginnaaw sant yàlla ak julli ci yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi ñaan ngërmandeg yàlla wàcc ci suñ sëriñ mawlaana cheikh ahmad tijani mu law wàcc ba siñ sëriñ xalifa cheikh ahmad tijani ki ko donn ci maqamam gu feeñ gi ak gu bëgg gi yépp ko ci sharia donn ko ci xaqiqa donn mbootam ci zahir ak ci baatin di Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ki nga xam ne moom mooy suñ mawduul yawm mooy suñ temu tey ndax dañuy joxe tem bu rëy boo xam ne euh, mënoon nañ dem ba guddi gi jeex fekke tem bi liñ ci laal moo gën a tuuti lañ ca bàyyi mooy temuk faydu faydu nag soxla na toujours fuñ rek di ko gën a leeralal mbokk taalibe yi pour ñu xam luy faydu ñeneen tamit ñi nga xam ne dugguñu ci faydu te ñuy dégg luy faydu ñu leeralal leen ñu xam luy faydu baatuk faydu du bàyyi ña sa ko créé du sayidi abdullahi waladil hajj moo ko créé du cheikh umarul fuuti moo ko créé du cheikh mouhamadul haafaz muxtaar shingiti du moo ko créé waaye baat bi cheikhu tijaani moo ñu ko wax demal ci ifadatul ahmadiya cheikh ahmad tijaani nee ne taati faydatun ala asxaabina wala ala asxaabi wannaasu fi gaayati ma yakunuuna alayhi min addiqi wa shidda dana ñëw benn faydu benn mbambastal benn sotteeku xam nga mag ñi laajoon nañ bàyyi luy faydu sànq maa ngi koy wax ci arab moo ngi firi faada sotteeku na yafiidu moo ngi sotteeku bàyyi bañ ko laajee luy faydu def ne sawwir biiran la tandab imaginel benn teen goo xam ne du musa ngacc abadan teen boo xam ne dafa fees dellu ndox te du ngacc ñu ne benn mu ne woo xablan laa yanshaq laa yanqati ak buum boo xam ne du dog abadan wa dalwan ak baag boo xam ne laa yanshaqu baag bi du xotteeku wa maatixan ak kuy sëf mooy kuy root laa yet abu koo xam ne du sonn moo ngi sotti ci mbalka boo xam ne ila xawdin laa la mbalka boo xam ne du fees min al azali jëlee ko ca azal balaa dara ilal abadi ba lépp jeex bàyyi nee na imagine loolu loolu mooy faydu kon ndekete bay fi muy jëlee du jeex te moom du sonn ndax ci xaatir la nee na ba ma jógee ko ci yonti yàlla muhammad dama yenu leeri ka anni baridu surri lil kulli qaadifan bi waqti hubuti misla waqti qiyaami mu ne dama jógee ca xaqiqatul muhammad ya yenu leer ya bu leen fàtte faydu bi ca yonent yàlla muhammad la ko bàyyi jëlee ndax nee ne wa zalika alfaydu min rabbi wa manshauhu xaqiqatu almustafa aljaali amal la ibi wa zalika alfaydu faydu gi min rabbi jëlee naa ko ca yàlla waaye wa manshauhu fan la faydu gi sosoo mooy xaqiqatu almustafa ci xaqiqatu almuhammadiya falaa ko jëlee mu ne ma yenu leer ya jógee ko ca xaqiqatu almuhammadiya ka anni mu mel ni man baridul kulli maa yenu leeru ñëpp lil kulli qaazifan maa ngi serve ñëpp kenn ku nekk maqaama ga ngay dund maa ngi la fay sànni leer jëlee ko ci pay bi kon sikki amul ne bàyyi radiallahu anhu ku am ndollal ci yàlla bi ko yàlla yëkkati ci àdduna ba bés yàlla lem suuf si ku am yëg-yëg ci yàlla wala ndollal rek bàyyi moo la ko sànni nga yëg ko wala nga ñàkk ko yëg foofu nag ñun ñoo ngi sant yàlla bi ñu yàlla defee ay taalibe bàyyi mi nga xam ne moo jiite imdaadaat yi ndollal yi ca yàlla da ko fa xàccee di jox bépp waliyu yàlla li kulli mutaaridin min al buhuri wal awaani ñi dëkk ay géej ñi dëkk ay paan ñi dëkk ay kaas waaye ku am rek moom moo la sottil ndax moom mooy borom jamono gi remplacé Cheikhu Tidiane may nandal waliyu yàlla yépp min al azali ila al abadi moo tax bàyyi ne afaada ilayya minhu xaqan wa innahu afaada li gayri min fuyudihi bàyyi yonent bi sottil na ma ba ma feesal ba keneen dëkkee mu ne ko demal ci Ibrahima mu sottil la li kulli qawmin haadin yàlla ne mbooloo mu nekk am na ku leen di jubal jëm ci yàlla ñun baay lañ tànn ndax wóor nañu sell na te su jàllee ñëpp jàll bàyyi ñas nee ne su ma demee bésu pencum yàlla yonent bi dana ma ne jàllal su ma nee jàllal ma ne ma gestu ko aqulu lahu sahbi wa ahla mawaddati fa qaal adxulu sahbal xalili tasaabaku su ma ne ko yonent bi sama gaaña aqulu lahu ma ne ko sahbi sama gaaña bàyyay wax ma ne yonent bi sama gaaña wa ahla mawaddati ak ña ma bëggoon mu ne ma fa qaala yonent bi ne udxulu sahbal xalil yéen taalibey Cheikh Ibrahima dugg leen te saabaqu rawante leen gaa yi rawante dugg ci jinaan yi moo tax yow ma nadu kulla unaasin bi imaamihim bés ba nga xam ne damay woo ñëpp ci seen njiit mooy firi nit ki su nekkee ne yàlla def lay xisaab yow kese da nga am problème waaye su nekkee ne nga am njiit ku mel ni Cheikh Ibrahim nga jébbal ko sa lépp su jàllee rek da nga jàll fa qaala duxulu sahbal xalil tasaabaku te bàyyi def ne sax bi sama taalibe yi waaye yemoo fa mais wa ahla mawaddati ak képp ku ma bëgg kon ndeke bëgg Cheikh Ibrahima rek dana jàlluloo nit ki donte sax nekkul ne taalibeem nga moo tax ñaanoon na ca ñaan nga ne wala yaku qishru diini hazza muhibbina bali lubba lubba lubbi mahdaatayi wala yaku yàlla bu mu nekk mukk qishru diini xollitub diine gi bu mu nekk xazacer naa ki ma bëgg man bàyyi képp ku ma bëgg yonent bi bul jël xollitug diine gi def ko muy cëram ñu ne ko lan mooy war a nekk cëram mu ne bali lubba lubba lubbi mahda atayi mooy jëlal lubb ak lubbu lubbi nag noo koy expliquer mooy gerte gi xollit ba ca kaw ba ngay xolli sànni ko pour mën a yee gerte gi boobu la ñuy tuddee xishru am na xishrul mooy gerte gu ndaw gi mooy gerte caaf gi doom bi am na xollit ci kaw boobu la ñuy tuddee xisrul xisri xollitu xolli ga am na doom ba doom bi la ñuy tuddee lubbu mais am na lu nekk ci doom bi mooy diw gi boobu la ñuy tuddee lubbu lubbi mu ne walaa yeku xisru diini xazza muhibbina bali lubba lubba lubbi mahda ataay yàlla bul jox ki ma bëgg xollitu diine gi mais jox ko lubbu lubbu gi kon bu boobaat Cheikh Tidiane moo wax lan mooy faydu newoon naa leen baat bi du bàyyee ko créé mais Cheikh Tidiane moo ko tudd ci téere ifadatul ahmadiya tayibu sufiyaanil akbar defoon ko waaye wax na tamit ba mu waxee du def ne sa yabruzu rajulun min altaifati wallahi la yurafu fi dunia wala fi l axira dana am benn góor gu feeñ ci sama tariqa bi gëñ naa ci yàlla man cheikh te lii tax cheikh gëñ du caaxaan mu ne gëñ naa ci yàlla góor googu su ñëwee kenn du ko xam ci àdduna kenn du ko xam ci àllaaxira bu boobaa ñu xam ne ndeke la misri daan junj ne haada maqaamun sha'nuhu la yurafu fal awliya minhu jami'an garafu wax gaangoog misri dafa ñëw ànd ak baay ba ba ci rawda Cheikh Ahmad Tidiane bi misri daal di woy Cheikh Ahmad Tidiane ne haada place bii mooy rawda Cheikh maqaamun sha'nuhu la yurafu maqaama la goo xam ne mbiram kenn du ko xam fal awliya wali yàlla ci mbiruk waa ji ci mbiruk maqaama gi lañuy naan wax wi nag dafa làq mbir parce que maqaama gi ak mbiruk maqaama gi du benn mënoon na wax maqaama bi ci boppam mais sha'nuhu sha'nuk maqaama gi mooy firi ne ndeke am na beneen sha'nu guy feeñ ci maqaama gi di ki yenu maqaama katmiya Cheikhu Tijaani ndax Cheikhu Tijaani moom feeñee na xatmiya waaye katmiya bi am na kum ko dencal mooy kay misri di junji noonu ne sha'nuhu mbiram laa yurafu kenn du ko xam fal awliya minhu jami'an garafu comme que cheikh waxoon na kenn du ko xam rek xam nga ne ndeke moo ngi junj waxu ko yàlla ga yàlla waxoon ne awliya yi taxta finaa yi laa yaarifuhum ahadun gayri sama wali ñoo ngi ci sama ron ëtt man yàlla kenn du leen xam ku dul man wali yàlla maqaamam dana màgg ba kenn du ko xam ku dul yàlla bàyyi ñes radiallahu anhu moo ne ah e, xaqiqatu Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mu ne dëgg-dëgg Cheikh Ibrahim kenn mada dahri la yudra xaqiqatuhu ahad ba adduna jeex kenn mënul xam lan mooy xaqiqaak Cheikh Ibrahim radiallahu anhu mais wujudu abi ishaqa fi hadratil ahad mada dahri la yadri xaqiqatahu ahad rabbaanee ko way kenn la ci ñi bàyyi yar xaafizu quran la woon jàngal ñu bëri ci doomu bàyyi gi dafa way bàyyi ne Eh, wujudu abi ishaq am amuk Baay Ñas fi hadratil ahad ci peeyug yàlla gi madad dahri ba àdduna jeex la yadri haqiqatahu kenn du xam dëgg-dëgg gi ahad kenn dëgg-dëgg moom kenn mënu koo xam ba mu waxee loolu misri noppiwul def ko tontu ne tabattana fi kunhil xilaafati mufradan ala annahu la kunha kunhun mujarradu mu ne tabattana waa jooju ngay wax dafa làqu fi kunhil xilaafati ci dëgg-dëgg xilaafa mufradan di kenn ala annahu ci kaw laa kunha foo xam ne kunhu amu fa sax moom kunhu la fa kunhun mujarradu kunhu nag dégg-dégg lay firi euh, misri yi moo tontu loolu cheikhaan moo tax bàyyi ñu ne ñi jàng naxwu dañ leen di misaalalee bàyyi soo ko bëggee xam mooy xarfu la xarfu la alaamata lahu xarfu amul màndarga ndax arab ñetti mbir a ci nekk langue arab ñetti mbir a ci nekk mooy jëf wala tur wala xaraf lépp lu dul jëf tur la lépp lu dul tur xaraf la lépp lu dul xaraf jëf la ci arab xaraf nag kenn du ko xam amul mandarga mais tur ak jëf am na mandarga ci arab suñ ne lan mooy màndargay tur nga ne bil jarri wa tanwini wa nidaaw al wa musnadin lil ismi tamyizun xasan euh, borom alfiya wéy na ko tënk na fa mandargay tur ni ñuy xamee tur soo bëggee xam luy jëf mu ne bi taa faalta wa atat wa yaf ali wa nuuni aqbilan na fiilun yen jëli waxal na la luy jëf waaye soo bëggee xam luy tur nag ñu ne la amul màndarga ñàkk am màndarga mooy mandargam amul nuñ koy xamee ñàkk am nuñ koy xamee noonu lañ koy xamee mooy misaaluk Cheikh Ibrahim mooy ta battana dafa laqatu fi kunhil xilaafati mufradan ci dégg dëgg xilaafa remplace Cheikhu Tidiane zahiran wa batinan ala annahu la kunha kunhun mujarradu kenn du ko xam na am mais doy na ci ay junj yu yonent bi joxe ndax yonent bi defe ne woon man xam naa li nekk léegi ak lay nekki ba bési pencum yàlla ndax def ne inna allaha rafa'a liya dunya fa ana anzuruha min mabdayha ila muntahaha yàlla yëkkatil na ma adduna man yonent bi maa ngi koy seen fam tàmbale ba fi mu yem kon naka jekk war na gis Cheikh Ibrahim te ku gis Cheikh Ibrahim war ngaa wax ci moom dara am na lum junj ci Baay radiyallahu anhu ndax ku nekk xam na ne yonent yàlla Muhammad waxoon na ne innakum sa taraw na tarawna rabbakum kama tarawna alqamara leylata albadri wala walan tatazahamu bés dana ñëw dangeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer wi su amee fukki fan ak ñeent mooy leylata albadri yonent bi ko wax mais junj ba léegi fi ma bëgg a yegg yeggaguma fa mooy bés dana ñëw da ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gisee weer su amee fukki fan ak ñeent te du ngeen buuxante ku nekk xam na ne sooy xool weer doo buuxante keneen loolu li muy firi mooy weer laylatal badri mooy weer wu am fukki fan ñeent ban xarnu la feeñ mooy xarnu fukkeelu xarnu ak ñeent la bàyyi feeñ mu tolloog la nazif daan junju ne zamanuna fi qarni rabii achar xaarat bihi qulubu man qad itabar zamanuna suñ jamono suñ demee ba ci xarnu rabii achar quatorzième siècle fukkeelu xarnu ak ñeent mu ne xaarat bihi qulubu man qad itabar mu ne képp kuy xool di settantal di jàng mbir yi ca yàlla rek danga gëléem ci jamono googu jamono googu nag moo tolloo karnu gi Cheikh Ibrahim ñas di dund moo tax El Hadj Abdoulaye junjoon na ko papaam su ma deewee ba am juróom-ñaari at ci suuf da ngeen xam man may kan moo tax ba mu deewee ñu teg ci juróom-ñaari at mu nekk 1929 ku nekk xam na ne 29 ak trent fala lay sotteeku di sotteeku woon jëlee ko ci péeyu yàlla gi mooy fayda ga nga xam ne moom la naar ba di junj biha kawlaxun daat wa siinun wa saalumun biha daati l afaqu waftaxara al naar bi ne biha kawlaxun ci faydu gi la kawlaxun daat kawlax leere wa siinun wa saalumun ci la siin ak saalum leer biha daati l afaqu fala gox yépp leer ci adduna gi fii ba Nigéria Niger Ghana fu nekk ci adduna bi waftaxara al jinsu mu ne xeetu doomu aadama ndamo ci faydu gi moo tax damay wax toujours dafa mel ni Sénégal gisuñ la waa gargosi gisoon ca Ghana bay bay di wax ka annana wa nahnu fii garagosi fii ahlina min taybatin likosi ka annana dafa mel ni man tey fii ma taxaw ci garagosi adduna baa ngi ma dar mbooloo maa ngi ma topp ñépp di wax Ibrahim Ibrahim mu ne ka annana dafa mel ni man fii garagosi ci biir garagosi maa ngi fii ahlina sama njaboot ga min taybatin likosi taybakoosi kookoy sëriñ dëgg-dëgg fam dëkk ak fam dëkku la yem ci moom ndax sirru bi gars yi dañ koy xeñtu wali yàlla yëpp dañ ko xeñtu bañ ko xeñtoo suñ ko gisee rek dañuy xàmme ne kii mooy góor ga dafa mel ni gaaya gisuñu la baay la la tamali ak yande gisoon ci baay baay ne tirtu ila tamal wa qasdi nasri diina almuhaymini wa yuli qadri jiitu wa ma amkanani nuzulu min kasrati nnaasi wala alhululu fatirtu fawran xiifatan li yandi ka anna kullal xalqi saaru indi bàyyi na dama wàcc tamal ñu ne ko loo jublu mu ne wa qasdi nasru diini mooy li ma jublu ma yëkkati diine ak yonent yàlla Muhammad waaye ba ma ñëwee ca tamali ca gana ma am kana ni nuzulu manuma wàcc min kasrati naasi ndax nit ñi ñi bëree ku nekk moo ngi bëgg a gis baay nga xam ne mooy sëriñu kulli makaanin bépp makaan bàyyi ne manuma wàcc ba fatirtu fawran ma naawaat ci saasi xiifatan ngir ragal mbooloo mi li ma dem ca yandi ñu ne ko est ce que ca yandi du gën a garaaw mu ne ba ma ñëwee ka an na kullal xalqi saaru indi dafa mel ni dama joxanteeg mbindeefuk yàlla gépp rendez-vous foofu nañ daje foofu ba mu wàccee ca yandi foola mbir mi gën a garaaw ma ne kon Sénégal gisuñu lii moo tax bàyyi ñu sa dellaanu nee ne maa ngi fanaan fii ci dëkk goo xam ne sëñ Ali Cissé la ko bindoon maa ngi fanaan fii ci dëkk goo xam ne ku dul sama taalibe fanaanu ci ñii dee wute nañu Sénégal bi ma zaalu fi nawmihim masakina wa xaasatan ahlu kawlax bàyyi ne ñii de wuute nañu ak ba léegi ñoo ngi nelaw ci seen nelawug réeraange xam ci kuy bàyyi masakina ñuy ay miskin wa xaasatan ahlu kawlax kenn waxatul nag waa kawlax bàyyi radiallahu anhu ca yande mu ne fatirtu fawran ma naaw ci saasi xiifatan ngir ragal mbooloo mi fan la cëppeelu li yandi ca yande ka anna kullal xalqi saaru indi mu mel ni mbindeefug yàlla yépp ñoo may xaar ca yandi ñu ne ko nan la mel mu ne ji'na ila muhammadil amiri amiri yandel mamba il kabiri wa faydatu tijani qad tadaffaqat bi yandi wal anwaru qad tafattaqat fa qultu la ilaha illa allahu muhammadun arsalahu l ilahu fa qaalaha al kuffaru wal majusu wal umara fa taabati nnufusu Baay Ñas nee ne ma yegg si yandi ji'na ma ñëw ila muhammadil amiri muhammad amiri yande buuruk yande ga baay wàcci ñëw ca këram ba mu ñëwee baay ne ba mu ñëwee ca buuruk yande euh, almamba il kabiri ballukaay gu màgg gi mu ne fala nag wa faydatu tijaani fayda gi nga xam ne moom lañ nar a waxtaanee kat tadaffaqat di jañu di sotteeku bi yande ca réewuk yande wal anwaaru kat tafattaqat gis nga de leer yaa ngi xobbeeku baay ne ma qultu laa ilaha illa allah wala lan anwaar yooyu su nekkee ne ci luxa la wal anwaaru mooy tóor tóor yi laa jam dafa am anwaar boo xam ne ay leer la jam u nuurin la mais am anwaar yoo xam ne jam u nawrin la mooy plurielu tóor tóor la mooy jam u nawrin la kon wal anwaaru toor tóor yi kat tafattakat ñuy xobbeeku booba nag laa wax laa ilaha illa allah gis nga bàyyi toujours su yeggee ci xaal yu tàng yi maanaam péyug yàlla gi di sotti ci dënnam ay imdaadaat ak ay fuyudaat da nga dégg mu ne fa qultu la ilaha illa allah comme nam ko waxee woon ca bës karima ca Guinée ba yàlla sottee ci moom faydu gi bam ne amul kenn kuy dajak man lu dul nga xam yàlla sawauni sigaaru wal kibaaru qad qaruba al habib wal mazaru kooku bàyyi moomu nag dafa mel ni ba léegi Sénégal xamaguñ ko waaye nag li ci kanam rawul bët ndax laaj nañ ko sal ci am koy nettali keroog gasama laaj na bàyyi mu ne ko waaw yow lu tax Sénégal xamula kom na la Nigéria xamee ak ñoom Ghana ak yeneen réew ya bàyyi ne ko kër moom pour noppaliku la liggéey ga ca àll ba la nekk tool ya ca àll ga lañ nekk hmm. mu ne kër pour noppaliku la kër moom pour noppaliku la tool yi ci àll ga lañuy nekk foofu lay liggéeyee yeneen sëriñ yi ku fanaan ca àll ga soo moytul doo reer ndax kenn xamu la waaye Baye Niass radiyallahu fu mu fanaan eh, xam nañ moom mooy kan ndax maqaama bi ci baatin la ci zahir la dañ ko yàgg xeeñtu foofa nag eh, Baye Niass moomu yonent bi dafa junj ne suñ demee ba jëmmi jamono da ngeen gis seen borom comme ni ngeen di gise weer wi su amee fukki fan ak ñeent muy quatorzième siècle boobu nga xam ne ci la Baye Niass radiyallahu anhu feeñ la fa nëbbu ci mbóot kenn mënu koo nettali kenn mënu ko xam mais xam leen ne rek jamono yi gën a baax yiñ jàng ci wàllu zahir ci wàllu zahir liñ jàng ci sharia jamono yi gën a baax ñeenti jamono la mooy jamono gi doon yonent bi di dund ak gi ci tegu ak gi ci tegu mu nekk ñett ak beneen boo xam ne jokkuwul ak jamono jooju loolu lañ jàng xayru qarnin ma ata fihi nabi summa salaasun baadahu aw aqrabi ñu ne li gën a baax ci jamono yi mooy jamono gi doon yonent bi di dund ak yeneen ñetti jamono mais ñaar yi nag dañoo taxaloog jamono yonent gi benn bi nag taxalowul ak jamono yonent bi mu ma jox leen foofu beneen ishaara mooy weer yi nga xam ne dañ koo tere xare ci l'islam te weer yi nga xam ne dañ koo tere xeex ci lislaam weer yooyu ñeent la muharram la ak zu zu hijjatin zu qaadatin muharramu wa rajabul fardi shuhurun hurramu zu qaada la ak zu hijja ak muharram ak rajabul fardi rajab nag dafa beddeeku bokkul ak ñetti weer yi ñetti weer yi ñoo tafoo ñoo bokk ñoo ànd mais rajab nag dafa beddeeku bu leen fàtte nag rajab boobu beddeeku ca la bàyyi ñees juddu radiyallahu anhu bu fàtte nag kon su nekkee ne su nekkee ne jamono yu baax ñeent la ñett yi ñoo taxaloo weer yiñ teree xare ñeent lañ ñett yi ñoo taxaloo bële nga xam ne mooy bi taxaloo ak ñoom mooy rajab te bàyyi juddu fa xamal ne beneen jamono ga ñuy laaf ci ñetti jamono yële moom mooy jamono Cheikh Ibrahim Niass bàyyi junj na ko wax na ko ne yaa ngi dégg inni wa in kuntul axira zamanihi la arju bisharati al amin li sahbihi sayaati zamanun la tazalu wa ummati wa ma qaalat isa suluwun li hisbihi wa inni man wa in kuntul axira su nekkee ne ñëw naa mujj bàyyi ne ne man su nekkee ne ñëw naa mujj ci jamono waaye xamal ne maa ngi bégee maa ngi kontaanee mbégte ya doon yonent bi doon bégal sahabaam ya di leen wax am na jamono yay ñëw mu ne ummati kal matar laa yudra awaluhu xayrun am axiruhu sama xeet gi dafa mel ni taw taw nag lay saxal jiwa xamoo la njëkk la wala la mujj la kon ngeneel gi ca mujjanteel ga laaj nañ ko yonent bi yonent bi nee wala alla axiraha atwalu shimraxan mu ne xëy na wu xeet gi ca mujjantelu jamono ci lay xob yi di gën a rëy waaye wa samaratu tadalli ma zalat kutufuha daaniya mooy meññetu tadalli moo ngi wàcc ba léegi te léegi la gën a wàcc walhamdulillah kon ñu dellu ca la xam ne moom moo ñu tax a jóg mooy alfaydatu alfaydatu mooy faydu ba ko Cheikh Ahmad Tidiane waxee Euh, tayibu sufyaan al akbar def ci teg ne wa la laa yastaabidu zamanaha wa kaana cheikh nekkoon na ne laa yastaabidu zamanaha mu ne jamono yi faydu gi soriwu ko lool loolu la cheikh waxoon maanaam jamono gi jamono gi faydu gi di daanu soriwul lool moo taxoon nag ñu bari ba bañ xamee ne jamono gi soriwul ñoo ngi ko doon wootu bëgg a nekk saahibul faydati boroomu jamono cheikh def ne woon faydu gi suy daanu jamono gi soriwul kon xam nga ne diggante bi ba eh, Cheikh Tidiane gaañoo ak bi bàyyi di juddu matul sax ñaari téeméeri at kon xam nga ne nekkee soriwul mais nag ci biir ñàkk a sori googu am na ñu doon wootu ne ñoom ñooy borom faydu gi waaw eh, danaa leen ci jox misaal tuuti Cheikh Abdallahi daan na ko waxtaane ah, bokkoon na ci eh, Seydi Mouhamadul Haafaz Shingiti ka nga xam ne borom xam-xam la jàngee woon ci Ibn Abdil Jalil ak Fakk ibnu Sidin borom xam-xam la gis ngeen ba mu aji Makka. mu jaari faas ziyaari mawlana cheikh ba cheikh jox ko lijaasa itlaq ne ko soo demee laa tuzhir nafsaka hatta yuzhiraka allah bul feeñal sa bopp ba yàlla feeñal la mu ñëw toog eh, ba yàlla feeñal ko yàlla ba mu ko feeñalee nit ñi jàpp nañ tariqa ci moom ba cheikh abdoulaye ne diggante bitel mit ak Nouakchott lépp ay xayma la woon ñëpp ay tijaan lañ woon jàpp ci Mouhamadul Hafiz Shingiti ba mu gisee mbooloo moomu nag mu yaakaar ne kon moom mooy borom faydu woyoon woy yooyu ne hab annani ana alladi qad zahar min al ula amruhumu qad ishtahar wa sahibu lfaydati akhira alzaman wa faiqu rijali fi ilmi alquran afradani fi salaasina sana wa uyqida alqulubu bi min assina mu ne na nga jàpp ne man maay waa jooju nga xam ne moo ngi bokk ca ñooñu nga xam ne su ñëwee ca lay faydu gi di daanu waaw loolu la wax mu ne defal ne man maa nga ca maay waa jooju nga xam ne maa bokk ca ña nga xam ne su faydu bi ñëwee ci ñoom lay daanu xam an na ni ana alladi qad zahar min al ula amruhumu qad istahar wa saahibul faydati jàppal ne mam maay borom faydu gi axira zamani mujjantelug jamono wa faayiqu rijaali fi ilmi alquran na nga xam ne man maa raw góor ña ci xam-xamu alquran kon moo ngi wax melo borom faydu bi su génnee wan nañu tamit ci biir waxam ne cheikhul islam alhaji ibrahima ñes moo raw adduna ci xam ci tamit alquran ndax wa faayiqul yàlla fi ilmil quran mais wasnu gi moo tax mu ne fi ilmil quran mu dindi ko ngir euh, wasnu bayti bi baax mais quran bi lim ci mooy quran kon wanaa leen la ci ne Baye Niass borom faydu bi comme que moom nekk ko def koy wootu nekk ko di wax meloom kon su borom faydu bi ñëwee na nga xam ne melo yooyu yëpp ñoo ngi ci borom faydu bi moo tax Baye ne woon ne sunna ak kitaab la adri man huwa a'lamu minni bihima alquran ak sunna gisuma ci kaw suuf ku ma ko gën a xam ko fekk na ñi ñu weex kese ñoo ko topp amul benn nit ku ñuul ku ko topp te xam leen kat borom faydu bi su ñëwee faydu gi amul frontière ya maanaa xeet amul frontière makaan amul frontière lenn ñépp ñëw ci soobu surtout ma borom xam-xam yeeg fuqahaaw yeeg ulamaaw yeeg ñépp dañuy soobu ci biir faydu ba jeex waaye mu xool fekk moom ñu weex kese ñoo ko topp mu xam ne am na signe bu manqué mu xam ne ndekete du moom waaye nag am na keneen ku ko wootu tamit ginnaawam mooy borom xam-xam ji bëri ga rajulul jihaadi rajulul zikri wa subha almutasawiful kabir maulana Cheikh Umarul Fouti Cheikh Umarul Fouti tamit ak maqaaba ni bi maqaaman bu koy googu wootu woon na ne moom mooy borom faydu yi li waraloon loolu nag la ko toppoon ci mbooloo te nekk ay taalibe kenn xamul nan lañ toll juróomi téeméeri eh, eh, juróomi téeméeri ndab la ñu yàq añ te ndab bu nekk la ca gën a tuuti juróomi nit danañ ci toog ku nga xam ne ñi ko topp bari nañ juróom benn téeméeri mbaam ñoo doon yenu ji këriñ ya nga xam ne moom lañuy ñuy war a toggee añ pour taalibe yi nga xam ne kooku ña ko topp bari nañ waaye nag ba mu gisee loolu taalibeem ibnu mahamal alawi laaj ko ne ko kan mooy borom faydu ga doon cheikh di wax ndax ñëw na wala ñëwul dégg nga mu ne ko yaakaar naa man la wala mu nekk limaamul mahdi kon moom xëcc na maqaama bi ci koom waaye xool na ba léegi fekk ñi ñu ñuul kese ko topp am na ñoo xam ne topp ñu ko ci ñu weex mu xam ne rek beneen siñ manqué na am na beneen doomu aadama goo xam ne nag boroom xam-xam la waliyu la ku am kashfu la sharif la abdullahi waladul haaj mi nga xam ne moo jur misri ma nekkoon taalibe baay kooku it wootu woon na maqaama gi wootu woon na ne moom mooy borom faydu gi lii yëpp bàyyi def ko bind ci kashiful albas moo tax ñu koy indi pour woon nit ñi ne ñawootu woon faydu ga bëri nañ waaye ba borom ñëwee kenn werantewu ko bàyyi ñes ba mu ñëwee ña nekkoon ci jamono gi te waroon wootu ñu ne ñoom ñooy faydu gi yëpp dañ ko nangul ba bàyyi ñes nee ne wa haulayi ashyaahu ashyaahul islam wa shuyuuxi tariqatina wa man adaahum iyaalun lahum wa kulluhum aqarru bi wuquyi hadi lfayda ala yadi hada al abdil jaani mu ne ñii nii nga xam ne nangul nañ ma ne man maay borom faydu ba mu ne ñii ñooy sëriñug l'islam gi ci jamono gi ñii ñooy kilifa tariqa tijaniya ci jamono gi képp ku nekkul ñoom njaboot nga ci ñoom te ñëpp d' accord nañ ala wukuyil faydati ala ala yadi hadal abdil jaani ñoom ñëpp d' nañ ne faydu gi dal na ci loxo al abdil jaani tawaadu an yaani min cheikh ci loxo euh, jaam ju xeebu gi ci misaal ñëpp d' accord nañ ci man de su kenn d' accordul woon sax lu dul benn waay mooy limaam sukay raj ma nekkoon maghrib su kenn d' accordul woon ku dul sukay raj rek man naa nangu ne bàyyi mooy borom faydu ndax su koy rëj moo rawoon ci jamono waaye nag dafa ne bàyyi ñes innaka alimu soodaan yow yaay borom xam-xamuk soodaan mu ne mu wax ak bàyyi ne shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bihi llahu min bayni albariyati qad xassa ay wax yu bëri yoo xam ne su koy rëj bind na ko mu nekk shahada qayima ala anna alfaydata waqaat ala cheikh ibrahima kon su kenn rek man d'accord naa ne Baye mooy saahibul faydati ndax ci jamono su koy rek amul ku mel ni moom kon Abdullahi waladul Haaj wootu na ne moom mooy borom faydu gi mais axiran mu gis ne du borom faydu parce que borom faydu gi suy faydu gi dal ci moom fanweeri at lay am mais moom bam koy wootu daanaka at yi bëri na lool mu xam ne du moom bu boobaa nag muy tukki nag ci këru tijaan yu mag yi di joxe lijaasa pour bëgg su borom faydu bi génnee moom mu bokk ci silsila gi bu leen fàtte moom moo doon sabab ba mu ñëw ci alxaaji abdullahi ñas papay baay xikaaya yu bëri ñoo ngi foofu ba mu gisee baay am na benn boroom xam-xam gu ma nettali nee ne ba mu ñëwee ci alxaaji abdullahi papay baay def ko ne man damay seet sama doom gu ma réer ci misaal la alxaaji abdullahi ne ko sa doom mu ne waaw mu ne ah xaaral ba xale yi ñëw nga xool xale yi jaar kenn kenn ñuy jaar ñoom ñëpp shérif bi abdullahi wala dul xaaj ji xool ba bàyyi yegsee mu téye ci bàyyi ne ko kii mooy sama doom ci alaaj Abdoulaye ne ko déet kii sama doom la mu ne ko kii sama doom la ni nga koy xamee danaa leen laaj ñoom ñëpp laaj waaye moom rek moo ko ciy tontu mu ne ko laajal mu ne leen ban fiil mooy fiil di ismu ban jëf mooy jëf ba pare di tur xam nga jëf ak tur bokkul ndax jëf dafa aju ci jamono mais tour ajuwul ci jamono jëf mooy comme nga ne maa ngi lekk xam nga dafa aju ci temps bi nga xam ne présent la fi fi mu nekk nii wala nga lekk naa li passé la wala lekkal lii ñëw loolooy jëf mais bokkul ak tour soo nee big xam nga bokkul ak léegi ak lii ñëw ak li passé tur moom tur la lënkoowul ak jamono tour nag tour la jëf jëf la jëf dafa lënkoog jamono tur lënkoowul ak jamono mu ne leen ban tour mooy tur ba pare delluwaat di jëf wax leen ma ko am ñoo xam ne ci doomu Alaaji Abdoulaye xëy na dañoo delluwaat ci téere yi di bax mais bàyyi ñes radilan dem jënd ataaya tegal naar gi mu xelli kaas la wol bi jox ko ba mu ko joxee naar bi naar bi ne ñëw leen xale bi gis na ko mooy ataaya ataaya dikk na ci man mais ataaya tamit tur la parce que ataaya soo koy firi ci arab mooy ataaya ñëw na ci man ata fiilu maadin la ataaya ñëw na ci man mais ataaya tamit tur la mooy ataaya mu ne kaay leen xale bi gis na ko eh, bàyyi ña bi bi sharif bi ñëwee kër alxaaj abdullah yi def ne def ne man man dama bëgg fanaan ci néegu ñax ndax man ñemewuma tàngoor néegu sengee fi nekk alhaji abdoulaye ne ah fii de moom néegu ñax kenn rek a ko fi yor mooy ibra mooy ba doomam ci cheikh ibrahima ñes ah xanaa mu mu génn néeg bi jox la mu ne déedéet mën naa fanaan ak moom ci biir néeg bi naar bi am na lu muy xëcc mooy sharif ba nga xam ne maqaamam ci yàlla yàlla rek a ko xam mais abdoulaye wala dul xaaj mii ma leen di nettali nii may ma wax leen mooy bi muy gaañu dafa woo axyaa yi foofu yépp ne leen kaay leen xool ni Tijaan di deewee ñépp ñëw mu ne leen dee bi ñëw na ba ci sama dojoor dee ñëw na ba ci sama oom dee ñëw na ba ci sama jumbax dee ñëw na ba ci sama put mu ne leen fii nag su dee ñëwee ba fii nit ki mënul wax lu dul dëgg déglu leen ma wax leen dégg gars yi ñu ne ko luy dégg mu ne kullu ma bachara bi cheikhu tijaani fa huwa xaqun lépp lu cheikhu tijaani soon wax dëgg la maa ngi leen koy wax fii ma toll nii maa ngi dee nii léegi nag danaa dee su ma deewee nag gana taw bàyyi leen ba taw bi sebet ngeen doog ma suul mu dee ci saa si rek taw bi wàcci bi taw bi wàccee ñu doog ko suul koo kookooy abdullahi wala dul haaj Baay Ñas nettali na histoire am bam paree lan la wax ne Abdu Shamsin jaddi la in kunti xadba fam la i wajhakil jamila xumusha mu ne Abdu Shamsin mu ne Abdu Shamsin mooy sama maam la in kunti xadba soo meree fam la i wajhakil jamila xumusha kii mooy sama maam moom laa doon ne bi moo ne woon Baay Ñas waqaatil fayda sa taqa'u lfaydatu alayka xaqiqatan la majazan faydu gi dana daanu ci yow ci xaqiqa waxuma la majaz kenn abbu la ko yaay boromam loolu la waxoon Baay Ñas a kooku nag moo ne damaa bëgg fanaan ci néegu ñax ñu ne ko fii de Ibrahima rek moo fi yor néegu ñax xanaa kon bu boobaa dafay génn àll néeg bi mu ne déedéet bàyyi leen ma fanaan ak moom kooku dafa bëgg a gis bàyyi am na lu mu soxla ci bàyyi bàyyi ñëpp nee ne waxtaan naag sharif googu boobu bàyyi ndaw la de boobu bàyyi xale la de alaaji Abdoulaye moo ngi judd te xam ngeen alaaji Abdoulaye bi muy gaañu boobu bàyyi moo ngi am ñaar fukki ak ñaar xam nga ne ko bàyyi mu daal di wax ak li lim njëkk a wax baay mu ne ko dama lay ñaan yow xale bi nga ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñi gën a màgg ci tariqa tijaniya muqaddam yi gën a màgg xasatul xasa fi hadi tariqati tijaniya ba mu ko waxee loolu bàyyi ne ko warlu naa la ko wala xale bu ndaw bi moo ngi warlul chérif bi nga xam ne moo ca maqaama qudbaaniya toog dem bay wootu alfayda ñëw sukk ci kanamu xale bi amagul 22 ans mu ne ko ñaanal ma yàlla ma bokk ci a xassil xasati fi hadi tariqati bàyyi ne ko warlu naa la ko bàyyi ne boobu man xaw ma ndax jël naa tariqa bi sax wala jël ma ma koy warlu foofa nag foofa nag mu laajaat bàyyi mu ne ko ginnaaw loolu ginnaaw loolu ginnaaw loolu mu laajaat mu wax ak bàyyi mu wax ak bàyyi ginnaaw loolu mu wax ak bàyyi mu wax laajaat bàyyi beneen laaj mu ne ko maa ngi ñaan maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma yàlla bésu pencum yàlla yàlla jël bàkkaaru xeetu muhammad yépp teg ko ci sama ndodd shérif bi moo ñaan li bàyyi bàyyi na ko warlu naa la ko xam nga bàkkaaru xeetu yël ci yàlla muhammad yépp nga gàddu ko loolu mooy firi kenn du dugg safar moo tax maa ngi leen di fàttali benn aaya yàlla def ne laa yaslaaha illa al ashqa alladi kazaba wa laa yaslaaha du lakk safara illa al ashqa lu dul ku texe hadi alladi ka nga xam ne kazaba dafa weddi yonti yàlla muhammad wa tawalla wane ginnaaw kenn du lakk safara lu dul ku weddi yonti yàlla muhammad wane ginnaaw kon li muy firi képp ku gëm yonent bi ak sa bàkkaar lu mu bëri bëri Seydina Ali nee na maa lil ibadi ci wal firdawsi manzilatun wa in xafu xafwatan fa rabbu xaffaaru mu ne doomu aadama yi amuñu wàccukaay jaami yàlla yi gëm yonti yàlla muhammad amuñu wàccukaay lu dul ñu ne suñ juumee mu ne way ne xafu xafwatan donte juum nañ fa rabbu xafaaru yàlla da leen di jéggal kon li ma foofu li muy mooy balaa moo laaj bakkaaru xeetu muhammad tegu ci ndoddom dafa am lu mu njëkk a laaj mooy mu bokk ci a axasil xaas ci tariqa tijaan yi kon foofa soo fa bokkee dootoo dugg safara ak loo mën a gàddu ci bàkkaar dootoo dugg safara kon ñaar rek soo ko amee dangay ngay dugg ajana mooy at tawhid wa hubbu rasulillah at tawhid mooy wéetal yàlla wa hubbu rasulillahi ak bëgg yonti yàlla muhammad moo taxoon Abdul Hamid di wax ya rabbi haadi zunubi fi lwara kasurat wa laysa li amalun fi lhashri yunjini wa qad ataytuka bitawhidi yashabuhu hubbu nnabiyi wa haada alqadru yakfini mu ne ya rabbi yow yàlla haadi zunubi fi lwara kasurat sama bàkkaar a ngi ni fees dell ci réew mi ci adduna bi ah aw ma lenn loo xam ne daf may muccal ba su pencum yàlla waaye wa qad ataytuka ñëw naa ci yow bi tawhidi ànd ak tawhid tawhid mooy wéetal yàlla yashabuhu ànd nag tawhid di hubbu nabi bëgg yonti yàlla muhammad tawhid wa hubbu rasulillah mu ne wa hada al qadru yakfini lii doy na ma ku indi ñaar yi bésu penc mi yàlla da nga dugg ajjana kon moo tax mu laaj bàyyi loolu bàyyi warlul ko loolu bàyyi warlul ko bàyyi nee ne am na luy waxtaan ci guddi gi maak Cherif Abdullahi wala dul haaj loo xam ne laa yuktabu fil awraqi wala yunzaru bil ahdar kenn mënu ko bind ci fooy kenn encore mënu ko xool ci bët kenn du ko bind ci fooy kenn du ko xool ci ci bët faydu gi nag ñii wootu nañ ko waaye ndekete lancement la woon ci borom faydu gi ci ñëwee faydu gi daanu ci Baay Ñas gis ngeen la xew-xew walaqa cheikhu min al marara ma lam yulaqihi ahadun min assaada bàyyi dajeeg jafe-jafe bi faydu bi daanoo bokk na ci jafe-jafe yooyu mooy gaa yooyu nga xam ne mutanabbi ne woon na in yasma'u subbatan taaru biha farahan minni wa ma sami'u min saalihin dafanu summun ida zuki summun ida sami'u xayran zukirtu bihi wa in wa in zukirtu bi xay bi summun ida sami'u xayran zukirtu bihi wa in zukirtu bi suin indahum azinu mu ne benn baay dafa janoog jafe-jafe bi fay dugi daanoo yan jafe-jafe mooy jafe-jafe yeeyu waa shaa'ir ba di wax ne ah maa ngi dëkk ñoo xam ne eh, in yasma'u subbatan suñ déggee ci man lu ñaaw taaru biha farahan ñu tasaare ko ci saasi wa ma sami'u min saalihin dafanu lépp luñ dégg ci lu baax suul ko bëggoon nañ fay fay digg ba kenn dootu ko dégg bàyyi ne naam awqadu naaran li harbi wa mihnati wa atfaaha al mawla biduni kalaami naam gaa yi de awqadu taaloon nañ naaran safara li harbi ngir bëgg a xeex ak man wa mihnati nattuma waaye wa atfaaha al mawla yàlla fay na safara gi biduni kalaami ci lu dul wax kon bàyyi jàkkaarloog ay jafe-jafe yoo xam ne mooy la lam defoon ca lettre ba Seydi Ali bind na bàyyi lettre boobu xëy na dafa am ay liggéey yum gisoon ci kër Cheikh Ibrahim bi noon yi suul ko foofu bàyyi ngi tukki mu bind ko lettre ca tukki ga nag mu koy wan ne daal na préparé wu ndax gaa yi tooguñu tëdduñu nelawuñ waaye boobu xamuñ kañ la ñuy jëflanteel Baye Niass radiyallahu anhu ne gis lettre bi liir ko bindaat Seydi Ali Cissé leetar pour dalal xelam mu ne ko waqaftu alal maknuni wa inni samitu min lisani man la yantiqu anil hawa an la yadurrani maxluqun kainan man kaana wa inni utitu umran atwala min umri walidi wa lawla anni muradullahi fala uhibbuhu lima fi hadhihi daari min alkadurat wa ubashirukum an la yaqa illa ma tuhibbuna wa tardawna fa inna hadhihi alfaydata faydatun tijaniyatun satanbasidu fi lardi wa taummu jamia al afaq faman arada an yunaffira annasa anha innama yunaffiru annasa anhu la anha wa salaam alhaji ibrahima ñesel kawlaxi bàyyi ne gis naa lettre bi waaye maa ngi la yëgal yow ali seydi ali cissé dégg naa ci làmmeñu ku dul wax ci bànneexu bakkanam yaakaaruma kenn kooku la kooku kenn la ku dul yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne dégg naa ci làmmeñu yonent yàlla muhammad an laa yadurra nii an laa yadurra nii kenn duma lor maxluqun ku yàlla sàkk kaayinan man kaan ak ku mën a doon an laa yadurrani maxluqun kaa'inan man kaan te yàlla jox na ma dund sax gu ëpp gu mu jox sama papa waaye su nekkul woon loolooy ndogalug yàlla du ma ko nangu ndax këru adduna dafa métti dafa neex waaye maa ngi leen di bégal an laa yaqaa dara du fi jot dara du fi rot illa ma tuhibbuuna wa tardawna lu dul li ngeen bëgg gërëm ci wa inna haazil fayda faydu gi faydatun tijaaniyatun faydak cheikhu tijaan la sa tan basidu fil ardi dana tasaaroo ci suuf wata ummu jeexal jamial afaaqi mboolam xeet yi fa man arada an yunaffira annaasa anha képp ku bëgg a dàq nit ñi ci faydu gi innama yunaffiru nnaasa anhu la anha yaa ngi dàq nit ñi ci yow waaye dàqoo leen ci faydu gi ndax lum yàgg-yàgg danañ ñëw xeeñtu ji lan mooy faydu lan mooy xam yàlla te bu boobaa danañ xam mooy yabnal kiraami ala tadnu fa tubsira ma qad haddasuuka fa ma ra'in kaman samia yow doom ju baax ji ñëwal fexe gestu la nga dégg ñu koy wax ndax ku dégg ak ku gis bokkul ñëwal fexe bokku ca ña gis bokku ca ña mos pour nga njëriñu waaye bul toog fee di wax mbir mi du dégg kon da nga yàgg wax du dégg te doo xam luy dégg kara ñoo ngi ci ngëmmantelug nelaw ñoo ngi nelaw nawmal adami yaani maa fiihi mawjudun man rek ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahbabtuhu hatta araaniya foofa la aliftu bihi wannaasu fii sinatil kara mu ne tamattaatu min huddaara may bànneexu ci yonent bi jamono id kuntu mufrada boobu kenn laa fii ci àdduna la ñuy buuxanteeg man may wax bëgg naa yonent bi keneen di wax bëgg na yonent bi waaye avant tey man ak yonent yàlla muhammad tamattaatu min huddahara bànneexu naa ci yonent bi jamono id kuntu mufrada boobu man kenn laa woon man ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bàyyi nee ne inna ni qabla albaraya xubbuhu shughlu dinaani na nii man bàyyi xablal baraaya balaa mbindeef mi balaa yàlla di sàkk asamaan balaa moo sàkk suuf balaa moo sàkk ajanaak safara balaa moo sàkk aalamu ardi shamsamati balaa moo sàkk aalamu biraayina aalamul na balaa moo sàkk dara booba man hubbuhu bëgg yonent bi suxlu jinaan yi moo yitteloon sama xol ñu ne ko xanaa booba yaa nga fa woon ndax koo xam ne xolama nga fa woon di bëgg kooku day firi nga fa woon kon kenn ku nekk na xam ne balaa yàlla di sàkk dara min kaa ngi fi woon parce que lam mooñee mbindeef mi ba ku nekk taxaw di wax man soo xoolee leeru min kaa ngi fi inna ni qabla al baraaya amul benn wali bu mu sa wax loolu parce que wax bi dafa leer arab la man balaa mbindeef mi ubbuhu bëgg yonent bi suuxlu jinaan yi suuxlu janaan yi moom laa moom laa yitteeloon ci sama xol moom laa doon dundee Baay Ñas nag yon Baay Ñas nag nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam su nekkee ne xam nga ko nga xam ma man soo ma xoolee rek dégg ma yërëm wa man kaana yadri l munxamin na o aqiba yariqu li xaalaati walaw kaan aadiya mu ne ku xam yonent bi xam ma man bàyyi soo ma xoolee dégg ma yërëm ndax li ci yonent bi du jeex te man duma tàyyi duma bàyyi ci yàlla muhammad saa sallam mooma nag bàyyi mooma nga xam ne ñaar lañ ñu mënul te xalikoo te bàyyi junjoon nañu ne wa aydan ara aynayhi tushbihu aynahu jamalan fa hal tulfa li ahmada min sunya bàyyi ñes nee ne wa aydan ba léegi gis naa ay ay wa ay dan ara aynayhi gis naa ñaari jëmmuk ci yàlla muhammad yi tushbihu aynahu ñoo ngi nuroog jëmmam ji gis naa ñaari jëmmuk ci yàlla muhammad ñoo ngi nuroog jëmmam ji ñaari jëmmuk ci yàlla muhammad yooyu nag mooy jëmm wilaaya di cheikhu ahmad a tijaani ak jëmm xilaafa muy maqaama cheikh ibrahima ñas ñaari jëmm yooyu bàyyi ne gis naa tushbihu aynahu ñoo ngi nuroog jëmmam ba léegi ku xam yenoon ci bi dëgg-dëgg soo xoolee Cheikhu Tidiane yi da nga xam ne jëmm yonent yàlla Muhammad moo fa nekk ku xam Cheikhu Tidiane dëgg soo xoolee Baye Niass da nga xam ne jëmm Cheikhu Tidiane fa nekk Baye Niass nee na xamaltu sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya yennu naa sekkere Cheikhu Ahmed yi mi nga xam ne moom moo matal wilaaya ci xeetu Muhammad jamaatu boole naa bayna zawqi wa diraaya diggante xam-xam gu ñuy mos ak xam-xam gu ñuy jàng ñaar yëpp laa boole man bay léegi nag soo xoolee baay man nga gis Cheikhu Tijaani yi ci naka Cheikhu Tijaani bañ ko laajee taalibe ñëw ko laajoon ñu ne ko yaa cheikhu anta bi raxilin an daari dunia ayna al xalifa yow sëriñ bés bés dana ñëw yow sëriñ bi ñu ñu la duñ la gis kon kan mooy xalifa bi ayna al xaliifa yaa cheikhu anta bi raxilin an daari dunia ayna al xalifa yow bés dana ñëw ñu laaj nit ñu xool duñ la gis comme kan mooy sa xalifa déglu leen wax ju baax kan mooy sa xalifa yow Cheikh Ahmed Tidiane Cheikhu Tidiane yi mënoon na tudd koo xam ne xëy na arab la mbootuk yàlla yàllaa koy def ko neex yàlla ne zalika yu yutihi man yasha man sama ngeneel maa koy jox ku ma neex ki ki yàlla neex mën na nekk ku ñuul mën na nekk ku weex mën na nekk ku njool mën na nekk ku gàtt mën na nekk olof mën na nekk pël mën na nekk lu nekk moo tax bañ ko laajee ana xalifa bi sa ginnaaw xalifa bi nag xalifa biñ koy laaj mooy ki nga xam ne moo koy remplacer ci maqaama ga muy dund ci yàlla bokkul xilaafa goo xam ne xilaafa ak cant la yaa fi nekkoon soo fi jógee man maay sa doom wala man maay sa sët maa war a donn sa maqaama gi déedéet donn kon ñaar la Cheikh Hassane dem daan ko texali mu ne alxilaafatu xilaafataani xilaafatu xalfin wa xilaafatu xalafin xilaafatu xalfin mooy wutug cant yow yaa fi nekkoon man maa la war a remplacer ndax maay sa doom ak yow yaa fi nekkoon jóge nga fi man maa lay wutu ci maqaama ga ngay dund ci yàlla kon ñaari maqaama yooyu bokkuñu kon ñoom lañ doon laaj Cheikhu Tidiane yi mooy suñ ko gisul maqaama ga muy dund ci yàlla kan moo ko fa remplacer Cheikhu Tidiane ne leen alxalifatu fi aqsa ardin wa axfa lawnin wa asabi zamanin yaa tiibil faydati aanadaaka fi daxsha wallahi laa yuntafau minna min baadi ali harazim illa ida zahara saahibul faydati mu ne alxalifatu sama xaliifa man fi aqfa ardin moo ngi ci réew mi gën a sori wa axfa lawnin moo ngi ci melo gi gën a nëbbu wa asabi zamanin dana ñëw ci jamono gu gën a métti ci jamono yi suy ñëw nag yaati mu indi bil li ñuy tuddee faydu anazaka fii daxsha ñépp gëlëm wallahi géñ naa ci yàlla laa yuntafau minna kenn du njëriñu ci man njëriñu gu mot ginnaaw ali xarazim illa ida zahara saahibul faydati lu dul si saahibul faydati feeñee saahibul faydati saahibul faydati mooy borom faydu gi il faut ñu leeral luy faydu mën naa wax ñi mujjee dugg ci faydu bi soo leen xaajoon téeméeri xaaj ñi mujjee dugg ci faydu bi soo leen xaajoon téeméeri xaaj 90 yi soo leen laajee lan mooy faydu ak fan la jóge ak fan la jëm ak lan moo tax mu ñëw xëy na duñ ko xam te lu ñu war a leeral la ndax ci mission yi Baye Niass la bokkoon bàyyi ñetti mbir moo ko taxoon jóg lislaam tariqa faydu amul benn wolu yàlla gu mus a yii nii di ànd ak moom te réussir ci am ci réussite ci ñett yëpp nga doxal lislaam ci sa jamono nga am ci najaa tariqa bi nga am ci najaa faydu bi nga am ci najaa kon na mu waree loolu amul benn doomu aadama gu mus a am loolu ku dul Baye Niass radiyallahu anhu laaj nañ ko nag lan moo yëkkati faydu bi ak lan moo tax faydu bi ñëw bàyyi la ñuy laaj bàyyi nee ne alxikmatu fi zuhuri hadihi alfayda fi hada alzamani alfasid huwa dufu alimaani fi qulubi annaas wa kasratu alfiraqi aldaalati almudilla wa hadihi alumma ummatun marxumatun fa ufidat alayhim alxaqaiqu likay yarjiu li asri fitnati alimaan bàyyi ñas nee ne alxikmatu lan mooy xikma fi zuhuri hadihi alfayda ci faydu gi feeñ mooy benn du dukkul imaani ngëm yàlla def fa ràgg néew doole fi xulubi naas ci xolu nit ñi te faydu soo ci duggee ba tarbi sa ngëm yàlla day yokku ndax ku daan yegg yàlla suñ ko waxee bàyyi ñu ne ko diw yegg na yàlla li muy njëkk a wax mooy alhamdulillahi alladi zaada al imaana fi ummati muhammadin sant naa yàlla mi yokku ngëm yàlla ci xeetu yonent yàlla muhammad parce que tarbi bi daf lay yóbbu falsafa la philosophie la goo xam ne daf lay yóbbu koo xam ne da ngay ràññee diggante yàlla ak lu yàlla parce que soo xoolee falsafa la philosophie la waaye nuróowul ak philosophie ñoom Descartes wala nit wala Karl Marx parce que ñooñu seen philosophie dañ ko tabax ci lëndëm mais philosophie faydatu tijaaniya dañ ko tabax ci leer ñee dañuy dem ba dàq yàlla yow da ngay ñëw ba saxal yàlla dàq lu yàlla kon ndeke faydu bi li tax mu jóg mooy duful imaan yi mooy xol yi xoli doomu aadama yi ngëm yàlla dafa ràgg ci ñoom yu qulubi wa kasratul firaqi dallatil mudilla kuréel yi réer yi réer ba pare di réeralaate dañoo bëri encore ci adduna bi kasratul firaqi dallal mudilla mu ne wa hadil umma booba nag xeet bii mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ummatun marxumatun xeet la gu yàlla yërëm fa ufiidat alayhim alxaqaayiq yàlla nag sànni ci ñoom faydu bi li koy yar ji wali asli fitratul imaan yi ngir ñu mën a dellu ci cosaanu ngëm ñu mën a dellu te na leen yàlla sàkkee woon seen xol avant ñoo gis kiiraay yi di dellu ci lu dul yàlla loolu moo yëkkati faydu gi lii moo yëkkati faydu gi waaye nag lan mooy faydu encore lan moo lan mooy faydu encore bismillah tafaddal dana ñëw ci libaay Baye wax yépp dana ñëw dana ñëw ci li Baye Diouf wax yépp ci wàllu xam yàlla géeg yaa ni ndax danañ ko xam wala duñ ko xam waaye dañuy njëkkee ci point yi nga xam ne am na solo lool mooy Baye Niass radiyallahu anhu indi na li ñuy tuddee faydu te Cheikhu Tidiane moo ko junjoon avant avant dara Cheikhu Tidiane radiallahu anhu wax na mbiru baay avant baay di ñëw déedéet tey kay wax nañ mbiru naam allahu kaana wa lam yakun wa takunu wala wala wa yakunu wala takunu uxaya ayna takunu mu ne allahu kaana wa lam takun wa yakunu wala takunu uxaya ayna takunu allahu kaana mu ne yàlla amoon na yàlla amoon na te amoo yàlla ba muy am yow amoo te da ñàkk mu continuer di am koo xam ne koo xam ne ba muy am yow amoo te da ñàkk mu continuer di am yow amoo fi moom moo fi nekk moo nekkoo fi moo fi nekk koo xam ne nekkoon na te nekkagoo te da nga ñàkk a nekk mu continuer di nekk kon ba ngay nekk nekkoo moom moo nekk allahu kaana walam takun wa yakunu wala takun uxayya ay na takunu foofa nag la sànni Seydina Seydina Ali dugg ci maqaama fanaaw fanaaw bi nga xam ne soo ko bëggee xam Cheikh Abdallahi daan na wax soo bëggee xam ni péeyib yàlla gi mel mu ne gëmmal sa ñaari bët la ngay seen foofu amul kow amul suuf amul biir amul biti amul dugg amul génn amul ana amul naka loolu lay Baay Ñas di wax laa yazaalul abdu Baay Ñas nee na laa yazaalul abdu yataqarrabu ila llaahi binnawaafili xatta yuhibbahu فإذا أحبه يجذبه جذبا لا يعرف الأبد فيه نفسه ولا غيره ولا أوله ولا آخره ولا جزءه ولا كله يغيب عن شهوده ويستهلك في شدة استهداره مولاه جل وعلا ويشاهد في تلك الحالة حضرة قبل القبل وبعد البعد ليس لها أول ولا آخر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا عين ولا كيف ولا اتصال ولا انفصال ولا داخل ولا خارج فني المحب في محبوبه حتى فني فناؤه فلم يبق إلا الله لا شيء غيره فما ثم موصول ولا ثم بائن باي رضي الله عنه نينا باي نينا نيت دو دنج di dem ci yàlla di demee ay naafila yu baax mooy salaatul fatih ndax kenn mënul yegg yàlla te jaaroo ci salaatul fatih xataa yuhibbahu ba yàlla bëgg jaam jooju yàlla su bëggee jaam jooju lan mooy xew fa ida ahabahu yajzibuhu yàlla su bëggee jaam ji def koy jazbu jazbu mooy xëcc def lay xëccee fa nga nekkoon yow mu yóbbu la fam nekkee moom ñu ne cheikhu tijaani yi lan mooy jazbu mu ne al jazbu huwa ixtitaafullahi l abda min waadi tafriqati ila bahri l jam'i bihaytu laa yasma'u wala yara wala yaqilu illa allah billahi fi llahi an illahi ila allah jazbu mooy yàlla xëcc la jëlee la fa nga doon yëgee sa bopp yóbbu la foo xam ne doo fa yëg lu dul jëmmuk yàlla gi xaytu laa yasmau wala yaqilu illa doo fa xelu doo fa dégg doo fa gis lu dul jëmmuk yàlla gi loolooy jas bu baa Ñas nee na soo jëlee salaatul fatih yéeg walla soo yéegee avion salaatul fatih daal di jëm ci péeyuk yàlla gi di wirdu salaatul fatih salaatul fatih bi dafa mel ni benn éponge boo tooyal di ko effacer sa yu seetu xol ndax xol day tilim ñu ne yonent bi wa maa jilaaluhaa mu ne zikrullah xol day tilim comme seetu la mel ñu ne yonent bi lan moo koy effacé mu ne tudd yàlla nga jël salaatul faati bi mu mel ni éponge boo xam ne danga ko tooyal di bomb sa tilimaa yu seetu xol pour jant jëmm yàlla gi mën a tàppe ci sa seetu xol nga mën a ràññeekan mooy yàlla bàyyi nee ne soo waree avion salaatul faati wala boo nga téye contact ak salaatul faati laay wax parce que nit ki xam na yàlla am na mais gisu ko moo ngi mel ni ku nekk ci néeg fay làmp bi xam na ne moom am na mais gisatul boppam te guddi la xam na ne moom moo ngi ci néeg bi am na mais gisatul boppam comme nam xamee na yàlla am na mais gisul yàlla su bëggee xam yàlla fan la nekk wala bëgg a gis boppam moom fan la nekk na laal contact bi su ko laalee su tàkkee day gis boppam haam bi xam na ne yàlla am na mais gisu ko xamul analaat naka moo ngi mel ni ku nekk ci néeg néeg baa ngi lëndëm xam na ne moom am na waaye gisul boppam moo ngi ci biir néeg bi néeg baa ngi lëndëm xam na ne am na waaye gisul boppam ginnaaw su bëggee gis boppam day laal contact bi bu boobaa xam bi tamit sa bëggee xam yàlla na laal contact ak salaatul faati bu boobaa nag bàyyi nee na yajzibuhu jazban yàlla xëcc la benn xëcc mu ne su la xëccee jaam ji dootul xam ci xëcc bi boppam dootu fa xam lu dul boppam lépp ay effacé wu dara du fa des lu dul yàlla laa yaariful abdu fihi nafsahu wala gayrahu wala awwalahu du xam njëlbéenam wala axirahu dootul xam mujjantalam su la yàlla xëccee jëlee la fa nga nekkoon yow yóbbu la fam nekk moom doo fa gis njëlbéen doo fa gis mujjantal ndax yàlla ci boppam soo ko xamee da nga fekk njëkkul mujjul ndax su nekkee ne moo njëkk xanaa dafa am kum doon njëkkanteel ñu nekk ñaar dafa am place bañ doon njëkkante dafa am jamono gañ doon njëkkante loolu dafa bëri te fi yàlla nekk bëri amu fa kenn fa nekk bàyyi nee na soo duggee ci pay boobu doo fa gis awwaliya doo fa gis axiriya laa awwaliyata hunaaka wala axiriyata hunaaka boobaa rek jaam ji effacé wu ndax lim teewloo yàlla ci dënnam yëgatul gisatul lu dul jëmmuk yàlla gi bàyyi nee na mu dugg pay boo xam ne qabla al qabli wa baada baadi qabla al qabli bi moo njëkk njëkk njëkk ci boppam pay yi yàlla gee ko njëkk ndax njëkk ba léegi jamono la wa baada baadi mooy mujj tamit peeyu yàlla bee ko mujj mujj day dem ba jeex fekk peeyu yàlla baa ngi fi baadal baat laysa laha awalun wala axirun mu ne yàlla fa mu nekk amul njëlbeen amul mujjantal wala fawqun amul kaw wala taxtun amul suuf ñu ne loolu naka nan la mel Cheikh Abdoulaye ne soo gëmmee sa bët la ngay seen foofu amul kaw amul suuf amul biir amul biti amul dugg amul génn amul ana amul naka jaam ja su fa duggee nag fan yel muhibbu fii mahbubi ka bëggoon yàlla jeex na ca kam bëggoon mooy yàlla falam yabqa illa allaahu dara des fa lu dul yàlla laa shay'a ghayruhu foofa nag la yonent bi ci biir laa ilaha illa allah gi nga xam ne njëlbeen gi man nga wax laa ilaha illa allah waaye mujjantal gi allah ngay wax parce que laa ilaha dàq la allah saxal la laa ilaha da ngay dàq allah da ngay saxal soo demee ba xam yàlla da ngay xam ne la ngay war a dàq nekku fa ba ngay dàq kon yaa ngi yàq sa temps fan ngay yem mooy allah allah shibli benn wali yàlla la fu mu daan toll allah allah la doon sikkare allah allah ñu ne ko yow lu tax doo wax laa ilaha illa allah allah allah rek ngay wax mu ne maa mana ani an azkura laa ilaha illa allah illa li yàlla amuuta fi saxra inna fi qabla an asila bi saahilil isbaat dara terewu maa wax laa ilaha illa allah lu dul bañ a dee ci àll dàq balaa maa yegg ci géejug saxal ndax àllëg dàq mooy fa ngay dàq lu dul yàlla soo yeggee da nga xam ne la ngay dàq nekk fa wala soo fa taalamu ann sayraka lam yakun illa ilayka falaw balagta almanzila aliyu nag xam ne ndeke dara nekk fi lu dul jëmmuk yàlla gi yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko di ko imtihaan ndax nit soo ko tarbiyoo léeg-léeg da nga koy laaj imtihaan ko xool fan la toll ndax am na yëg-yëg ndax am na mos-mos ci yàlla yonent bi ne ko yaa aliyu mu ne ah mu ne ko kaana allahu wala shay'a maahu amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla nekku fi ba mu waxee loolu déglul tontu bi koy Seydina Ali tontu nga xam ne xaqiqatan kii dégg na yàlla kii mos na yàlla kii xam na yàlla ndax ku dugg ci maqaama fanaawu su waxee rek danga nga xam ne kii yegg na yàlla waaye kuy fanaawu te fanaawul di xam-xam lu te xamul su waxee benn baat bu njëkk bi mën na dajeeg dëgg waaye soo ko dégloo su kanamee rek da nga fekk mu saaraan mu mel ni dof ja nga xam ne dañ doon seetu weer wi gisuñu ko dof bi jékki-jékki ne weer waa ngi nii gaa yi xool dajeeg weer bi ñu ne ah di ko dofatul mu dégg ñu koy wax mu ne weneen a ngi nii ñu xam ne ndeke kii ba léegi dafa dof ginnaaw moo ngi gis beneen weer kuy xam-xam lu te xamoo noonu lay mel dafa mel ni xam nga léegi da lépp yàlla la loolu ku nekk mën na kaa wax lépp yàlla la ku nekk mën na kaa wax waaye suñ la toppee da nga saxal leneen lu yàlla moo tax fanaaw bi ku duggul ci xaqiqa cheikh xadratu cheikh ibrahim soo ko xam-xam looy doo ko xam danañ yegg suñu bàyyi Juuf wax léegi ci xam yàlla bi incha allah léegi ñoo ngi ci sayidna aliyu ak nan la waxee nafsu xaqiqatu nafsi lañ ko laaj ma leen di waxal nag kan mooy sayidna ali d'abord balaa dara parce que ci ki gën a xam yàlla ci sahaaba yi la bokk sayidna aliyu toog na benn bés fëgg na ne inna hahuna la ilman jamman law asabtu bihi laqinan fii xam-xam ku yaatoo ngi fi ma amoon gëléem yi ko yenu te Seydina Ali nee na lawla al inaayatu la awqatu sab'ina ba'iran min tafsiri baa il basmalati su nekkuloon inaaya danaa firi baa ul basmala point bu nekk ci bismillahi rahmaani rahim danaa ko firi firi boo xam ne dañ ci yenn juróom-ñaar fukki gëléem 70 gëléem bañ 10 ci firi baa ul basmalati point bi rek mooy bismillah yi point bi def am lu muy junj moo tax Amru bnul Farid kenn ci wëlu yàlla la nee na péyug yàlla gi wax naag moom ne ko falaw kunta bii min nuqtatil baa'i xafdatan rufita ila ma lam tanalhu bi hiilati yow amru bnul farid soo meloon ci man ni point baa bi mel ci man ndax dafa suufe soo suufe lu woon ba dammati sa am am kon danaa la may loo xam ne ma lam tanalhu bi hiilati mënoo ko jotee ci sa pexe kon ndeke baa bi dafa am lu muy saydna ali ibn abi taalib ak xam-xamam gu réy googu yonent bi laaj ko ne ko kaana allahu wala shay'a maahu amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla amul bu boobaa xam nga laaj bi dafa mel nañ ko ci piège xaqiqatan amoon na jamono yàlla rek a fi nekkoon lu dul yàlla amul day mel ni léegi am na lu fi xew lu dul yàlla mais Seydina Ali tontu ko ne wa huwa al aana ala ma alaykaana ba tey nam nekkee woon te dara amul noonu la nekkee ba léegi gisuma fi dara lu dul moom yonent bi xam ne kii xam na yàlla moo tax Seydina Ali ne raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu la shakka anta anta gis naa yàlla ci sama bëtu xol ma ne ko sikki amul ne yow rek yaa yow anta anta kon anti yëpp yow rek yaa ko moom yow yaa moom moom moom ku ko wax man ku ko wax rek yow yaa ko moom moo tax man yooyu dañuy danaa ci dugg Seydina Ali ibn Abi Talib ñu laaj ko ñu ne ko maa hiya xaqiqatu sirri lan mooy dëgg-dëgg sek xaqiqatu nafsi laa bëgg a wax maa hiya xaqiqatu nafsi parce que soo xoolee yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba mu fi nekk yàlla dara nekkul moo ngi dund ci maqaama sirru yàllaa ngi dund ci maqaama haahut yàlla wàcc ci haahut jëm ci jabarut jëm ci yàlla muhammad wàcc ci sirru ñëw ci ruuxu yàlla wàcc ci jabarut jëm ci malakut jëm ci yàlla muhammad wàcc ci ruuxu jëm ci aqlu yàlla wàcc ci euh, malakut dem ci euh, def yàlla wàcc ci euh, haahut laahut yàlla ba mu fi nekkee ci yeneen ci bee ngi ci maqaama nafsu yàlla wàcc ci haahut jëm ci laahut yonent bi wàcc ci eh, maqaama sirru dem ci ruuxu haahuutan wa laahuutan wa jabaruutan wa malakuutan wa naasuutan mooy juróomi pay yàlla yi doon yàlla dund avant yonent yàlla muhammad saa sallam dund eh, sirran wa ruuhan wa aqlan wa qalban kon haahuutuk yàlla moo méngoog eh, sirru yonent yàlla muhammad laahuutam moo méngoog ruuxu yonent yàlla muhammad jabaruutam moo méngoog aqlu yonent yàlla muhammad malakuutam moo méngoog euh, euh, euh, qalbu yonent yàlla muhammad saai sallam naasuutam moo méngoog nafsu yonent yàlla muhammad saai sallam kon yonent bi dund na sirru mooy secret dund na ruuxu mooy mooy am dund na aqlu mooy xel dund na qalbu mooy xol dund na encore nafsu mooy bakkan mujjantelu maqaama yonent bi dund yàlla sàkk mbindeef mi ci maqaama nafsu la sirru nag moo njëkk siru sekere la ñu ne yaa siin soo ko waxee day firi yaa siina sirrillah fi xadarati haahuutillaahi qabla al qabli yow siinuk sekkerek yàlla gi doon dund ci haahuutuk yàlla balaa dara parce que yaa siin yow siin bi lay firi ci baatin siin bi lay firi kon siin bi siinuk sirru la nafs googu nga xam ne mooy mujjantaluk feeñuk yont yàlla muhammad laaj nañ seydina ali luy xaqiqatu nafsi mu ne xaqiqatu nafsi laysa almaru yaarifuha fa kayfa kayfiyatu aljabbaari fi lqidami mu ne xaqiqatu nafsi ngeen baal ma fi may wax nii xëy na dina am ñu ko dégg am ñu ko du dégg danaa fa génn léegi xaqiqatu nafsi mooy dégg dëgg bakkan laysa almaru yaarifuha nekkul ku nekk ko mën a xam dëgg-dëgg bakkan nekkul ku nekk ko mën a xam Cheikh Tidiane ba muy wax Baye lan la wax wallahi laa yurafu fi dunia wala fi l axira kenn xam ci àdduna kenn du ko xam ci àlaxira ñu laaj Cheikh Abdoulaye ñu ne ko kon fan lañ koy war a xamee mu ne fu àdduna amul alaxira amu fa ndax doo xam bàyyi di ko xam ak leneen xaqiqatan kon laa yurafu fi dunia wala fi axira Seydina Aliyu junju na maqaama gi léegi ne gaa yi di ko donnante Cheikh Assane Deme daan na wax silsila bi Seydina Ali ibn Abi Talib nee ne law kushifa anni l-ghitaa mazdattu yaqinan soo babbati woon juróom-ñaari asamaan babbati arasa kursi yi ma jana ko yàlla du ma yokku yaqiin ci yàlla yaqin mooy certitude goo xam ne moo lay may dëggu mu ne parce que ni ma xamee yàlla maanaam xam du ko jéggi xam nag ba xam mazahir ya nga xam ne ñoo ngi ñëw ci yeneen jamono yi ba adduna jeex moo tax yonent bi ne ana madinatul ilmi wa aliyun baabuha man maay dëkku xam-xam waaye aliyu moom mooy bunt bi moo tax Cheikhu Tidiane bi ñëwee tamit aliyu mooy bunt bi ba léegi ali harazim wala ali tamasib yi ñaar ñëpp ay buntu lañ bàyyi ñëw aliyu bunt bi ba léegi anna aliyan baabahu siisa anna aliyan baabahu siisa ak anna aliyan baabuhu siisa ñaari siree nga fa benn siri bi mooy anna aliyan aliyu baabuhu mooy war a nekk bunt bi daal kon ali ismu inna la baabuhu di xabar bi ci ci ñu jàng naxwu naxwu arab am na tamit anna aliyan baabahu sikki amul ne aliyu mii nga xam ne mooy bunt bi siisa defar nañ ko nañ ko war a defaree ndax siisa ñoo ngi ko jële ci saasa siisa فاف سيس سيس في الماضي مبذول المجهول kon laa xaroo anna aliyan baabahu siisa ak baabuhu siisa bàyyi ñas ne ko annee la ki haza ya mariam yow mariam foo jëlee lii mariam ne ko huwa min indillahi ci yàlla laa ko jëlee xoolal loolu ay alxuraan lañ fa def iqtibaas su nekkee ne xam nga luy alxuraan da nga fekk muhaawara bi muhaawara gu rafet la moo tax nag sirru aliyoo ngi noonu jëlee ko ci yonent yàlla muhammad ba ci cheikhu tijaani ba ci Baye Niass radiyallahu anhu dama bëgg xam nag dama bëgg ngeen xam Baye nekkul ku xëy tey rek ñu xam ko tey borom basiira yi balaa tey balaa Baye di ñëw borom gis-gis yi ci baatin waxoon nañ ci Baye limam Ghazali wax na ci Baye wa mutliu shamsi nafsi min mashriqil xalaa sa yutliuha min maghribil adamiyati lu mu tax mi misiri ne ko fa innaka shamsul xaqi sharqan wa maghriban fa inna bihamdillahi fi maghribi shamsi yaa doon jantub dëgg gi ca penku waaye yow yaay jant dëgg encore ci soow fa inna ñun ñii bi hamdillahi sant naa yàlla fii ma fii maghribi shamsi ñoo ngi ci soow jant gi misri nee na fa in charraqa al aqwaamu yowman wa garrabu fa sayri ilaykum laa ila charqi wal garbi nit ñi suñ demee penku wala soow di uuti di tukki di def lu nekk man sama dox ci yow la jëm ndax yow yaay sekk rek penku yow yaay sekk rek soow moo ngoog bàyyi limaamu Ghazali junj na maqaama gi ci madaariju madaariju nufus soo xoolee wa mutliu shamsi nafsi su nekkee ne am nga gis-gis nga xool maqaama baay bi da nga xam ne kii waxul kudul baay ñes radiallahu anhu ñi ñi borom xalaat yu ko wéy nag laay waxagum danaa ñëwaat ci baay mi nga xam ne zahir bi la soo xoolee wa mutliu shamsi nafsi su nekkee ne am nga gis xool maqaama baay bi da nga xam ne kii waxul kudul baay ñes radiallahu anhu ñi ñi borom xalaat yu ko wéy laay waxagum danaa ñëwaat baay mi nga xam ne zahir bi la ndax baay dafa am baay boo xam ne baatin la am baay boo xam ne zahir la comme ni Cheikhu Tidiane amee maqaama zahir amee ko noonu ci baatin yonent bi amee noonu maqaama zahir amee noonu ci baatin yàlla amee ko tamit ci zahir amee ko ci baatin ndax lu nekk rek day am lu feeñ am lu nëbb kam xarra sabruka wabtisaamuka saahiban lamma raaka wa fil xasha ma la yura ñaata yoon la sama muñ ak sama muuñ di la nax ndax xott yaram wi ngay gis waaye wa fil xasha ma la yura tey soo xamoon li ma nëbb ci sama dënn ci ay maqaama da nga xam ne bàyyi ñes neen subhaana man satara alxususiyata bil bashariya sellal naa ki jël doomu aadama nëbbee ko maqaamam nga muy dund ci yàlla wa in tuxsil caméra kulla shay i fa maa fi su nekkee ne caméra mën na jël lu nekk fa maa fi ëmb ci xol bi jalla anil caméra loolu caméra mënu koo jàpp koo koy bàyyi ñes ñu laaj cheikhu ñu laaj ñu ne kan kan mooy kan mooy bàyyi ndax dafa junj bàyyi junj junj dana danaa ñëw ci bàyyi zahir bi fi mu nekk nii xëy na dana am ñu njëriñu dana am ñu njëriñuwul parce que wax bi dafa <laughs> waaw mongo euh, cheikh cheikhu tijaani radiallahu anhu nee ne sullatun min al awalina wa sullatun min al mu ne ak sullatul axiratu hum ashaabi yàlla wax na nee ne mbooloo mu njëkk ma ak mbooloo mu mujj ma ñaari mbooloo la yàlla tudd ci alquran Cheikhu Tidiane jóg te moo matal wilaaya ci xeetu Muhammad amul benn wali bu koy féetee kaw ba yowmal qiyaamati matal wilaaya ci ñaari maqaama la matal naa wilaaya benn wali dootul ñëw ba raw ma ak matal naa wilaaya beneen wali yu dootul ñëw sama ginnaaw mais loolu yonent yàlla Isaa la ko yàlla may Isaa su ñëwee benn wali yu dootul ñëw yonent yàlla Isaa dana wàcce mujjantalu jamono su wàccee benn wali yu dootul ñëw فيختم عيسى لا تكون ولاية بأيد ممات الروح والسر يدفن باين يسنين فيختم عيسى عيسى دنا متى الولاية خيت محمد لا تكون ولاية ولاية دوت الأم بأيد ممات الروح جناو بعيسى ديوي سو عيسى واتشاتي بدي wali dootul judd ci kaw suuf ñu ne lu tax bàyyi nee na wa sirru yit fanu secret gi dañ koy suul kon isa matal na wilaya ci zahir waaye cheikhu tidiane moo matal wilaya ci baatin matal wilaya ci baatin mooy lan mooy cheikhu tijaani dafa jàkkaarloog yoon ci yàlla muhammad ne talabtu min rasulillahi buluga algaayati fi aqsa maqaami alqudbaaniyati allati ma fawqahu maqaamun illa maqaamu nubuwati maa jàkkaarloog yoon ci yàlla muhammad ma ne ko dama bëgg nga may ma maqaama gi gën a màgg ci biir maqaama qudbaaniya nga xam ne wali yu dootul ñëw kawe garaat ba paase ma may ma ma dem ci biir wilaaya ba nga xam ne ku ma paase yonanti ngay nekk waaye doo mën a nekk waliyu Baay Ñas radiyallahu anhu nee na la amriya haada cheikhu ayni wilayatin tafajjara min bahri nubuwati saafiya yéemu naa ci cheikhu Tijaani dafa dem ba jeexal bahrul wilayati géejug wilaya daal di suux xuus ci géejug nubuwa mooy géejug yonant mu génn daal di nekk wali yu nekkul yonant la amriya bàyyi ne géñ naa ci sama a haada cheikhu sëriñ wii muy cheikhu Tijaani ayni wilayatin mooy jëmmug wilaya ku naan ci géejug wilaya moo la nandal ndax nee na laa yashrabu waliyun wala yasqa illa min bahrina min nachati l alami ila nafxi fi suur wali du naan du nandal ci géejug wilaaya lu dul man maa ko may mu naan ñu ne ko loolu ba nga ñëwee la mu ne déedéet min nachati l alami ba yàlla ajee asamaan bi waddal suuf si ba tey waliyu yàlla gu naan wala nandal ci sama géej la naan la naan man Cheikhu Tidiane te man maa ko nandal li ci gën a yéeme nag mooy yonent yàlla yi avant ñoo nekk ay yonent ay wali la ñuy nekk suñ la laajee la kon ku leen doon nandal neel Cheikhu Tijaani yonent yi balaa ñoo nekk ay yonent ñoo ngi doon naan ci géejug wilaaya ay wali lañ nekkoon ba bañ amee ñeent fukki at ñu jo doog leen jox maqaam ak wa kon nag ndeke ba nekkee ci maqaam ak wilaaya Cheikhu Tijaani huwa alladi kaana yumidduhum kon xamal ne amul benn wali ci kaw suuf buy naan ci géejug wilaaya lu dul cheikh moo la nàndal nga xam ko walla nga ñàkk koo xam léeg-léeg am na kuy taal courant te xamul kan mooy directeur bi yor courant bi xaqiqatan noonu la mbir mi mel wali yàlla gi dana dund ci leerug Cheikhu Tidiane yi dund ci maqaam ak Cheikhu Tidiane yi Cheikhu Tidiane di ko nandal te fekke moom xamul cheikh moo koy nandal waaye fan lay leeri mooy keroog àllaaxira Cheikhu Tidiane nee na su àllaaxira jotee yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam dana jël benn photo yi tegal ma ko ci kaw mbindeef mi fekk ñépp a ngi teew awwal yi nag na ñu njëkk ak ñu mujj teew ñu tegal ma benn photo yi man ma toog ci man Cheikhu Tidiane lan la yonent bi di def mu ne yonent bi day taxaw junj ma ne haza imaamukum wa haza mumiddukum fi daari dunia kii mooy seen njiit kii moo leen doon dolli ci kërug adduna te xamu leen ko kooku nag ci baxrul wilaay googu mooy mooy Cheikhu Tidiane radiallahu anhu ci maqaamaat wilaay googu nga xam ne matal na ko xaatimul wilaaya ci laay wax moo matal wilaaya ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci wàllu ci wàllu euh, baatin li muy firi mooy amul benn wali buy ñëw ba yemook moom dara bi parce que jour boobu mu waxee xadamaaya haataani ala rakabati kulli waliin lillah jour boobu mu waxee sama ñaari tànk yaa ngi ci dox bépp wali yàlla am na kenn ci góorug yàlla yi Muhammadul Xaali ku ñëw ne ko yow sëriñ bi li ngay wax nii dangaa màndi ci sàngaraak yàlla gi di wax walla yow yaa tey li ngay wax parce que am na maqaama goo xam ne ci maqaama yàlla yi soo fa sooboo dootoo nekkateeg sa xel man nga wax ci làmmeñu maqaama jàmbur te fekk moomoo maqaama googu waaye ba mu laajee cheikh cheikh def ko ne ana fi kamali sahwi walillahi alhamdu maa ngeeg sama xel mandiw ma ci péejuk yàlla gi li may wax nii maa ngeeg sama xel gu mat sëkk ne bépp wali tey sama ñaari tànk yaa ngi sa ko bopp danaa génn foofu tuuti pour ñëw ci cheikh ibrahima radiallahu anhu nga xam ne moom mooy guddi gi parce que Baye Diouf njukkal Baye la tuddee guddi gi kon li ci gën a bëri dafa war a nekk Baye te Baye moomu suñ koy tudd mën nañ ci tuddaale bàyyi Diouf ndax bàyyi Diouf Baye la ba léegi nee naa ko nag alhamdulilah su ma la gisee damay fàttaliku benn séeréer boo xam ne yàlla def ko may lu rëy ci maqaam ak yàlla yi tuddoon Ndongo Saar ca gine ndax bu leen fàtte Baye rixilaam bi Baye def na fi benn la dem gine yàlla may ko fa ay fuyudaat ay imdaadaat ay tajalliyaat ba dégg ngeen foofu la bàyyi daan woyee ne xamaltu sirra xaatima sirra xaatimil wilaaya jamaatu bayna zawqi wa diraaya bàyyi dem na Conakry benn góor ci góorug yàlla ya nekkoon foofu nekk benn sëriñ ci sëriñu xaadir yi tuddoon ndongo saar xam naa sa mbokk la ndongo saar moomu borom maqaama la woon ci yàlla waaye ba gisee baay xool baay xam ne kii borom mbir la kii moo toog ci jamono gi tey parce que bàyyi da ko doon xool rek xam ne kii mooy saaxibul waxtu bila nisain ndax waa ji wax na ko ko ca Makka benn eh, Sudani xool bàyyi rek di ko laaj kan mooy sëriñam mu ne ko alxaaji Abdoulaye sama papa mu ne waa ji woy woy bi ne ko acheikhu ibrahimu aadamu xujjatin lil xaaji inna alxaaja kaana azima dëgg-dëgg xam naa xaaj moomu ku màgg la te yow yaay preuve bi gën a leer ni xaaj ku màggoon la ndax ku la gis rek war na xam sa seriñ ku màgg la baay moomu ku ko daan gis da ngay xam ne kii la yàlla yenn sirru euh, wiraasa muhammadiya ci jamonoom moo tax ndongo saar bi mu gisee baay dafa démissionné ci maqaama yam nekkoon yépp te qaadir la woon mu daal di génn tariqa qaadiriya daal di jàpp ci baay baay ñas ne cheikhu tariqatin wa kaana qaadiri axasa anni l yowma fi konakiri cheikhu tariqatin baay ne sëriñuk tariqa la wa kaana qaadiri qaadir la axada anni al fii konaakiri jëlee na ci man tey tariqa bi al wax bi al yawma tey fii konaakiri ci konaakiri ñu ne ko nan la tudd mu ne yud a bi ndongo saara wax wa alamun qaddamtuhu hiinan li sirrin alamu yud a waa ji ñoo koy woowee bi ndongo saara ndongo saara wax wa alamun bàyyi ne ngandongook alamun xam nga ku bàyyi wax ngand kooku ngand la bàyyi yàlla def ko préparé depuis ca azal su nekkuloon loolu ñam fi fekkoon am na ñoo xam ne génnewu leen dara waaye préparation la bu yàlla def ca azal yen ko maqaama goo xam ne ku ko gis su nekkee ne am nga bëtu xol da nga xam ne kii moo yenu sirru jamono gi ndax Muhammadul Hafiz ibnu Abdillatif ca Masr te yoroon mbiru tariqa tijaan bi ci jamono yooyu ba mu gisee baay am na ci benn jotaay mu wax ci baay wax ci baay ba ne wa al u bil jumlati fa innahu nuuru haazal asri li gën a li jeexal wax bi daal bàyyi ñas mooy leeru jamono gi tey te ku toll ni Mouhamad Mouhamadul Hafiz ibn Abdul Latif wax loolu ci bàyyi nga xam ne Baye moom moom mbir mi ndax su ko moomul woon kenn du ko ko jox wan naasu ak yesu min an yamdahu rajulan min gayri an yajidu athara ihsani wan naasu nit ñi ak yesu paase nañ min an yamdahu rajulan ba ñuy tagg nit min gayri an yajidu athara ihsan te gisuñu si yow lañ lay taggee kon góor yàlla yooyu waxoon Baye yow la dañoo gis ci Baye lii wane ne moom la moo tax ndax waaja nee na benn naar nee na man yàlla may na ma aynul basirati su ma gisee saahibul waqti danaa ko xam dégg naa na ngeen di coow Ibrahima Niass Ibrahima Niass balaa may wax dara bàyyi leen ba ma teg ko sama ñaari bët yi su ma ko gisee su nekkee ne mooy waaja dinaa leen wax moom mooy waaja su nekkul ne mooy waaja dinaa leen ko wax man yàlla may na ma aynul basirati ñu ne ko moo nga Kaolack mu jóge nii ñëw Kaolack ñu ne ko bàyyi yaa ngi Dakar mu ñëw fii jëppal ñu ne ko bàyyee ngi kër El Hadj Umar Kan ba ngi ci biir jàkka ji bàyyaa ngi ci biir jàkka ji tiim kaamilam wàcce ay veeram di jàng moo ngi sukkandiku nag nii jël jël loxoom ndeyjoor bi sukkandiku ko tiim kaamil bi wàcce ay veeram di jàng te waa ji nee na moom su gisee saahibul waqti yaarifu yaqinan annahu huwa saahibul waqti loolu sikki amu ci xool leen ko nag moom ak baay ba ñëwee ba ci jàkka ji ubbi bunt bi seen baay a ngi sukk ci loxoom tiim kaamilam wàcce ay veeram baay bi bunt bi yëngoo dafa yëkkati boppam di xool kan moo yëngal bunt bi ba mu yëkkati boppam xool waa ji waa ji xool baay waa ji dafa am xaal ne inna ila rabbika almuntaha hunalika aljamaalu hunaka albahaar mu ne inna ila rabbikal muntaha kuy dem ba dajeg yàlla fa nga yem loolu la waajo inna ila rabbikal muntaha hunaalikal jamaalu hunaakal baha waaw mbir yëpp ci yàlla la yem mu ne kuy dox ba dajeg yàlla da ngay dem inna ila rabbikal muntaha moo tax bàyyi ne labbayka talbiyatan min waasilin arafa min kawlaxin muntaha dunya ila arafa bàyyi ba muy aj nee na yàlla wuyu naa la wuyu gu jóge ci jaam gu la xam fan la jóge min kawlaxin jaam jaa ngi jóge ca kawlax fan mooy kawlax muntaha dunya fi adduna bi yem adduna bi yemul kawlax li muy firi mooy sooy ut ku la xamal ci yàlla ba nga yegg kawlax fa nga yem moo tax naar bi ne inna ila rabbika al muntaha hunaalika al jamaalu hunaaka al baha waa ji ne ci yàlla nag la ñu yem hunaalika al jamaalu bépp taar ngi ni hunaalika al baha bépp rafet a ngi ni nag man dugg ci faydu bi soo leen xaajoon téeméeri xaaj ñi mujjee dugg ci faydu bi soo xaajoon téeméeri quatre-vingt-dix yi soo leen laajee lan mooy faydu ak fan la jóge ak fan la jëm ak lan moo tax mu ñëw xëy na duñ ko xam te lu ñu war a leeral la ndax ci mission yi bàyyi Ñas la bokkoon Baay ñetti mbir moo ko taxoon jóg lislaam tariqa faydu amul benn walu yàlla gu mus a isdiwaaj yii nii di ànd ak moom te réussir ci am ci réussite ci ñett yëpp nga doxal lislaam ci sa jamono nga am ci najaa tariqa bi nga am ci najaa faydu bi nga am ci najaax comme na mu waree loolu amul benn doomu aadama gu musa am loolu ku dul Baay Ñas radiyallahu anhu laaj nañ ko nag lan moo yëkkati faydu bi ak lan moo tax faydu gi ñëw Baay la ñuy laaj Baay nee ne al hikmatu fi zuhuri hadihi al fayda fi hadha zamani al fasid huwa dufu al imani fi qulubi nnaas wa kasratu al firaqi dallati al mudilla wa hadihi al umma ummatun marhumatun fa ufidat alayhim al haqaiqu likay yarji'u li asri fitlati al iman Baay Ñas nee ne alxikmatu lan mooy xikma fi zuhuri haazil fayda ci faydu gi feeñ mooy benn duful imaani ngëm yàlla def dafa ràgg néew doole fi qulubi naas ci xolu nit ñi te faydu soo ci duggee ba tarbi sa ngëm yàlla day yokk ndax ku daan yegg yàlla suñ ko waxee bàyyi ñu ne ko diw yegg na yàlla li muy njëkk a wax mooy alhamdulillahi allazi zaada al imaana fi ummati muhammadin sant naa yàlla mi yokku ngëm yàlla ci xeetu yonti yàlla muhammad parce que tarbi bi daf lay yóbbu falsafa la philosophie la goo xam ne daf lay yóbbu foo xam ne da ngay ràññee diggante yàlla ak lu dul yàlla parce que soo xoolee falsafa la philosophie la waaye nuróowul ak philosophie ñoom Descartes wala Nietzsche wala Carlo parce que ñooñu seen philosophie dañ ko tabax ci lëndëm mais philosophie faydatu tijaaniya dañ ko tabax ci leer ñee dañuy dem ba dàq yàlla yow da ngay ñëw ba saxal yàlla dàq lu dul yàlla kon mooy duful imaan mooy xol yi xoli doomu aadama yi ngëm yàlla dafa ràgg ci ñoom fi qulubi nnaas wa kasratul firaqi dallatil mudilla kuréel yi réer yi réer ba pare di réeralaate dañoo bëri encore ci àdduna bi kasratul firaqi dallal mudilla mu ne wa hadhihi l umma boobu nag xeet bii mooy xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeet la yàlla yërëm fa ufidat alayhim alxaqaayiqu yàlla nag sànni ci ñoom faydu bi li kay yarjiu li asri fitratil imaani ngir ñu mën a dellu ci cosaanu ngëm ñu mën a dellu te na leen yàlla sàkkee woon seen xol avant ñoo gis kiiraay yi di dellu ci lu dul yàlla loolu mooy yëkkati faydu gi lii moo yëkkati faydu gi waaye nag lan mooy faydu encore lan moo lan mooy faydu encore yàlla loolu moo yëkkati faydu gi lii moo yëkkati faydu gi lan mooy Diouf wax yépp ci wàllu xam yàlla géeg yaa ni ndax danañ ko xam wala duñ ko xam waaye dañuy njëkkee ci point yi nga xam ne am na solo lool mooy bàyyi Baye Niass radiyallahu anhu indi na li ñuy tuddee faydu te Cheikhu Tidiane moo ko junjoon avant avant dara Cheikhu Tidiane radiyallahu anhu wax na mbiru Baye avant bàyyi di ñëw. ñu ne li gën a baax ci jamono yi. mooy jamono gi doon yonent bi di dund. ak yeneen ñetti jamono mais ñaar yi nag dañoo taxaloog jamono yonent gi benn bi nag taxaloowul ak jamono yonent bi mu mooy weer yi nga xam ne dañ koo tere xare ci lislaam te weer yi nga xam ne dañ koo tere xeex ci lislaam weer yooyu ñeent la muharram la ak zu zu xijjatin zu qaadatin muharramu wa rajabul fardi shuhurun hurramu zu qaada la ak zu xijja ak muharram ak rajabul fardi rajab nag dafa beddeeku bokkul ak ñetti weer yi ñetti weer yi ñoo tafoo ñoo bokk ñoo ànd mais rajab nag dafa beddeeku bu leen fàtte nag rajab boobu beddeeku ca la bàyyi ñees juddu radiyallahu anhu bu leen fàtte nag kon su nekkee ne su nekkee ne jamono yu gën a baax ñeent la ñett yi ñoo taxaloo weer yiñ teree xare ñeent la ñett yi ñoo taxaloo bale nga xam ne mooy bi taxaloo ak ñoom mooy rajab te bàyyi juddu fa xamal na beneen jamono ga ñuy laaf ci ñetti jamono yële moom mooy jamono Cheikh Ibrahim Niass bàyyi junj na ko wax na ko ne yaa ngi dégg inni wa in kuntul axira la arju bishaaraati l amin li sahbihi sayaati zamanun la tazaalu wa ummati wa ma qaala fi isa suluwun li hisbihi wa inni man wa in kuntu l axira su nekkee ne ñëw naa mujj bàyyi ne ne man su nekkee ne ñëw naa mujj ci jamono waaye xamal ne maa ngi bégee maa ngi kontaane mbégte ya doon yonent bi doon bégal sahaabam ya di leen wax am na jamono yay ñëw mu ne ummati kal matar laa yudra awaluhu xayrun am axiruhu sama xeet gi dafa mel ni taw taw nag lay saxal jiwa xamoo la wala la mujj la kon ngëneel gi ca mujjanteel ga laaj nañ ko yonent bi yonent bi nee ne wala alla axiraha atwalu shimraxan mu ne xëy na tàndarmaw xeet gi ca mujjantelu jamono ci lay xob yi di gën a rëy waaye wa samaratu tadalli ma zalat qutufuha daniya mooy meññetu tadalli moo ngi wàcc ba léegi te léegi la gën a wàcc walhamdulillah kon ñu dellu ca la nga xam ne moom moo ñu tax a jóg mooy alfaydatu alfaydatu mooy faydu ba ko Cheikh Ahmad Tidiane waxee euh, tayibu Sufyaan al akbar def ci teg ne wa kaana laa yastaabidu zamanaha wa kaana cheikh nekkoon na ne laa yastaabidu zamanaha mu ne jamono yi maanaam jamono gi jamono gi faydu gi di daanu soriwul lool moo taxoon nag ñu bëri ba bañ xamee ne jamono gi soriwul ñoo ngi ko doon wootu bëgg a nekk saahibul faydati borom jamono cheikh def ne woon faydu gi suy daanu jamono gi soriwul kon xam nga ne diggante bii ba eh, Cheikhu Tidiane gaañoo ak bii ba di juddu matul sax ñaari téeméeri at kon xam nga ne ne ke soriwul mais nag ci biir ñàkk a sori googu am na ñu doon wootu na ñoom Seydi Mouhamadul Haafaz Ashingiti da nga xam ne bakka mu jaari Faas ziyaare Mawlana bitlaq ne ko soo demee laa tuzhir nafsaka hatta yuzhiraka Allah bul feeñal sa bopp ba yàlla feeñal la mu ñëw toog eh, ba yàlla feeñal ko yàlla ba mu ko feeñalee nit ñi jàpp nañ tariqa ci ba Cheikh Abdoulaye nee ne diggante Bitelmit ak Nouakchott lépp ay xayma la woon ñëpp ay tijaan lañu woon jàpp ci Mouhamadul Hafiz Shingiti ba mu gisee mbooloo moomu nag mu yaakaar ne kon moom mooy borom faydu bi ba wootu ne moom la woyoon woy yooyu ne hab annani ana alladi qad zahar min al ula amruhumu qad ishtahar wa saahibul faydati axira zaman wa faayiqu rijali fi ilmi alquran afradani fi salasina wa uyqida al qulubu bi min as-sina mu ne na nga jàpp ne man maay waa jooju nga xam ne moo ngi bokk ca ñooñu nga xam ne su ñëwee ca lay faydu gi di daanu waaw loolu la wax mu ne defal ne man maa nga ca maay waa jooju nga xam ne damaa bokk ca ña nga xam ne su faydu bi ñëwee ci ñoom lay daanu hab annani ana alladi qad zahar min al ula amruhumu qad istahar wa saahibul faydati jàppal ne man maay borom faydu gi axira zamani mujjantelug jamono wa faayiqu rijaali fi ilmi alquran na nga xam ne man maa raw góor ña ci xam-xamu alquran kon moo ngi wax melo yi borom faydu bi su génnee wan nañu tamit ci biir xam ne cheikhul islam alhaji ibrahima ñes moo raw adduna ci xam-xam ci tamit alquran ndax o faayiqu rijaal fi ilmi alquran mais waznu gi moo tax mu ne fi ilmi alquran mu dindi ko ngir euh, wasnu bayti bi baax mais quran bi lim ci yu mooy quran kon leen la si ne baay Niass borom faydu bi comme que moom nekku ko def koy wootu nekku ko di wax meloom kon su borom faydu bi ñëwee na nga xam ne melo yooyu yëpp ñoo ngi ci borom faydu bi moo tax Baye ne woon ne sunna ak kitaab laa adri man wa alamu minni bihima alquran ak sunna gisuma ci kaw suuf ku ma ko gën a xam kon bu boobaa kooku ba mu ko wootoo fekk na ñi ñu weex kese ñoo ko topp amul benn nit ku ñuul ku ko topp. te xam leen kat borom faydu bi su ñëwee faydu gi amul frontière jinsiya maanaam xeet amul frontière makaan amul frontière leen ñëpp ñëw ci soobu surtout boroom borom xam-xam yeeg fuqahaaw yeeg ulamaaw yeeg ñëpp dañuy soobu ci biir faydu ba jeex waaye mu xool fekk moom ñu weex kese ñoo ko topp mu xam ne am na signe bu manqué mu xam ne ndekete du moom waaye nag am na keneen ku ko wootu tamit ginnaawam mooy borom xam-xam ju bëri ga rajulul jihaadi rajulul zikri almutasawiful kabir Maulana Cheikh Umarul fuuti Cheikh Umarul fuuti tamit ak maqaama bi maqaamaang bu koy googu wootu woon na ne moom mooy borom fay yi li waraloon loolu nag la ko toppoon ci mbooloo te nekk ay taalibe kenn xamul nan lañ toll juróomi téeméeri eh, eh, juróomi téeméeri ndab la ñu yàq añ te ndab bu nekk la ca gën a tuuti juróomi nit danañ ci toog ku nga xam ne ñi ko topp bari nañ. juróom benn téeméeri mbaam ñoo doon yenu ji këriñ ya nga xam ne moom lañuy ñuy war a toggee añ pour taalibe yi nga xam ne kooku ña ko topp bari nañ waaye nag bam gisee loolu taalibeem ibnu mahamal alawi laaj ko ne ko kan mooy borom faydu ga doon cheikh di wax ndax ñëw na wala ñëwul dégg nga mu ne ko yaakaar naa man la wala mu nekk limaamul mahdi kon moom xëcc na maqaama bi ci koom waaye xool na ba léegi fekk ñi ñu ñuul kese ko topp am na ñoo xam ne topp ñu ko ci ñu weex mu xam ne rek beneen signe manqué na am na beneen doomu aadama koo xam ne nag boroom xam-xam la waliyu la ku am kashfu la sharif la abdullahi waladul haaj mi nga xam ne moo jur misri ma nekkoon taalibe baay kooku it wootu woon na maqaama gi wootu woon na ne moom mooy boroom faydu gi lii yëpp bàyyi def ko bind ci kaashiful albas moo tax ñu koy indi pour won ñi ñi ne ña wootu wan faydu ga bëri nañ waaye ba borom ñëwee kenn werantewu ko Baye Niass ba mu ñëwee ña nekkoon ci jamono gi te waroon wootuñu ne ñoom ñooy faydu gi yëpp dañ ko nangul ba Baye Niass nee ne wa haulayi ashyaahu ashyaahu lislam wa shuyuxi tariqatina wa man adaahum iyaalun lahum wa kulluhum aqarru bi wuquyi hadi lfayda ala yadi hada al abdiljani mu ne ñii nii nga xam ne nangul nañ ma ne man maay borom faydu ba mu ne ñii ñooy sëriñug lislaam gi ci jamono gi ñii ñooy kilifa tariqa tijaaniya ci jamono gi képp ku nekkul ñoom njaboot nga ci ñoom te ñëpp d'accord nañ ala wukoyil faydati ala ala yadi haadal abdil jaani ñoom ñëpp d'accord nañ ne faydu gi dal na ci loxo al abdil jaani tawaadu an yaani min cheikh ci loxo euh, jaam ju xeebu gi ci misaal ñëpp d'accord nañ ci man de su kenn d'accordul woon sax lu dul benn waay mooy limaam sukay raj ma nekkoon maghrib su kenn d'accord loon ku dul Sukayraj rek man danaa nangu ne bàyyi mooy borom faydu ndax Sukayraj moo rawoon ci jamono waaye nag dafa ne Baay Ñas innaka alimu Soodaan yow yaay borom xam-xamuk Soodaan mu ne mu ak Baay ne shahidtu lakum fathan mubinan bima lakum bihi llahu min bayni albariyati kat xasa ay wax yu bëri yoo xam ne Sukayraj bind na ko mu nekk shahada qayima ala anna alfaydata waqaat ala Cheikh Ibrahim kon su kenn nanguwul woon ku dul sukay rëj rek man d'accord naa ne Baye mooy saahibul faydati ndax ci jamono sukay rek amul ku mel ni moom kon Abdullahi waladul Haaj wootu na ne moom mooy borom faydu gi mais axiran mu gis ne du borom faydu parce que borom faydu gi suy faydu gi dal ci moom fanweeri at lay am mais moom ba koy wootu daanaka at yi bëri na lool mu xam ne du moom bu boobaa nag muy tukki nag ci këru tijaan yu mag yi di joxe lijaasa pour bëgg su borom faydu bi génnee moom mu bokk ci silsila gi. bu leen fàtte moom moo doon sabab ba mu ñëw ci alxaaji Abdullahi ñas papay baay xikaaya yi bari ñoo ngi foofu ba mu gisee baay am na benn boroom xam-xam gu ma nettali nee ba mu ñëwee ci alxaaji Abdullahi papay baay def ko ne man damay seet sama doom gu ma réer ci misaal la alxaaji Abdullahi ne ko sa doom mu ne waaw mu ne ah xaaral ba xale yi ñëw nga xool xale yi jaar kenn kenn ñuy jaar ñoom ñëpp shérif bi Abdullahi waladul xaaj di xool. ba bàyyi yegsee mu téye ci bàyyi ne ko kii mooy sama doom ci ji alaaj Abdoulaye ne ko déet kii sama doom la mu ne ko kii sama doom la ni nga koy xamee danaa leen laaj ñoom ñëpp laaj waaye moom rek moo ko ciy tontu mu ne ko laajal mu ne leen ban fiil mooy fiil di ismu ban jëf mooy jëf ba pare di tur xam nga jëf ak tur bokkul ndax jëf dafa aju ci jamono mais tur ajuwul ci jamono jëf mooy comme nga ne maa ngi lekk xam nga dafa aju ci temps bi nga xam ne présent la fi mu nekk nii wala nga lekk naa li passé la wala lekkal lii ñëw loolooy jëf mais bokkul ak tur soo nee big xam nga bokkul ak léegi ak lii ñëw ak li passé tur moom tur la lënkoowul ak jamono tur nag tur la jëf jëf la jëf dafa lënkoog jamono tur lënkoowul ak jamono mu ne leen ban tur mooy tur ba pare delluwaat di jëf wax leen ma ko am ñoo xam ne ci doomu Alaaji Abdoulaye xëy na dañoo delluwaat ci téere yi di baax mais bàyyi ñes radilan dem jënd ataaya tegal naar gi mu xelli kaas la wol bi jox ko ba mu ko joxee naar bi naar bi ne ñëw leen xale bi gis na ko mooy ataaya ataaya dikk na ci man mais ataaya tamit tur la parce que ataaya soo koy firi ci arab mooy ataaya ñëw na ci man ataa fii lu maadin la ataaya ñëw na ci man mais ataaya tamit tur la mooy ataaya mu ne kaay leen xale bi gis na ko euh, Baye Niass bi bi Cherif bi ñëwee kër Alhaji Abdullahi def ne def ne man man dama bëgg fanaan ci néegu ñax ndax man ñemewuma tàngoor néegu sengee fi nekk alxaji abdullahi ne ah fii de moom néegu ñax kenn rek a ko fi yor mooy ibra mooy ba doomam Cheikh Ibrahima Niass ah xanaa mu mu génn néeg bi jox la mu ne déedéet man naa fanaan ak moom ci biir néeg bi naar bi am na lu muy xëcc mooy sharif ba nga xam ne ma maqaamam ci yàlla yàlla rek a ko xam mais abdullahi wala dul xaaj mii ma leen di nettali nii may leen ma ma wax leen mooy kan bi muy gaañu dafa woo axyaa yi foofu yépp ne leen kaay leen xool nii tijaan di deewee ñépp ñëw mu ne leen dee bi ñëw na ba ci sama dojoor dee ñëw na ba ci sama oom dee ñëw na ba ci sama jumbax dee ñëw na ba ci sama put mu ne leen fii nag su dee ñëwee ba fii nit ki mënul wax lu dul dëgg déglu leen ma wax leen dégg gaa yi ñu ne ko luy dégg mu ne kullu ma bashara bi cheikhu tijaani fa huwa haqqun lépp lu cheikhu tijaani musoon wax dégg la maa ngi leen koy wax fii ma toll nii maa ngi dee nii léegi nag danaa dee su ma deewee nag dana taw bàyyi leen ba taw bi sebet ngeen dog ma suul mu dee ci saa si rek taw bi wàcc bi taw bi wàccee ñu dog ko suul ko kookooy abdullahi waladul haaj Baay Ñas nettali na histoire am bam paree lan la wax ne abdu shamsin jaddi ila in kunti xadba fam la i wajhakil jamila xumusha mu ne abdu shamsin mu ne abdu shamsin mooy sama maam la in kunti xadba soo meree fam la i wajhakil jamila xumusha kii mooy sama maam moom laa doon ne sirru bi moo ne woon Baay Ñas waqaatil fayda sa taqaul faydatu alayka xaqiqatan la majazan faydu gi dana daanu ci yow ci xaqiqa waxuma la majaz kenn abbu la ko yaay boromam loolu la waxoon Baay Ñas kooku nag moo ne damaa bëgg a fanaan ci néegu ñax ñu ne ko ba euh, fii de Ibrahima rek moo fi yor néegu ñax xanaa kon bu boobaa dafay génn àll néeg bi mu ne déedéet bàyyi leen ma fanaan ak moom kooku dafa bëgg a gis bàyyi am na lu mu soxla ci bàyyi bàyyi ñes nee ne waxtaan naa Sharif googu boobu bàyyi ndaw la de boobu bàyyi xale la de El Hadj Abdoulaye moo ngi judd te xam ngeen El Hadj bi muy gaañu boobu bàyyi moo ngi am ñaar fukkeet ak ñaar xam nga ne ko bàyyi xale la ci néeg bi. mu daal di wax ak baay lim njëkk a wax baay mu ne ko dama lay ñaan yow xale bi nga ñaanal ma yàlla ma bokk ci ñi gën a màgg ci tariqa tijaniya muqaddam yi gën a màgg xaasatul xaasa fi hadi tariqati tijaniya ba mu ko waxee loolu bàyyi ne ko warlul naa la ko wala xale bu ndaw bi moo ngi warlu chérif bi nga xam ne moo ngi ca maqaama qurbaaniya toog dem bay wootu alfayda ñëw sukk ci kanamu xale bi amagul 22 ans mu ne ko ñaanal ma yàlla ma bokk ci a xasil xasati fi haasi tariqati bàyyi ne ko warlu naa la ko bàyyi ne boobu man xaw ma ndax jël naa tariqa bi sax wala jël ma ma koy warlu foofa nag foofa nag mu laajaat bàyyi mu ne ko ginnaaw loolu ginnaaw loolu ginnaaw loolu mu laajaat mu wax ak bàyyi mu wax ak bàyyi mu wax ak bàyyi ginnaaw loolu mu wax ak bàyyi mu wax laajaat bàyyi beneen laaj mu ne ko maa ngi ñaan maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma yàlla bésu pencum yàlla yàlla jël bakkaaru xeetu muhammad yépp teg ko ci sama ndodd shérif bi moo ñaan li bàyyi bàyyi na ko warlul naa la ko xam nga bakkaaru xeetu yontu yàlla muhammad yépp nga gàddu ko loolu mooy firine kenn du dugg safar moo tax maa ngi leen di fàttali benn aaya yàlla def ne laa yaslaaha illa al ashqa alladi kazaba wa laa yaslaaha du lakk safara illa al ashqa dul ku texe hadi alladi ka nga xam ne kazzaba dafa weddi yonti yàlla muhammad wa tawalla wone ginnaaw ken du lakk safara lu dul ko weddi yonti yàlla muhammad wane ginnaaw kon lu muy firi képp ku gëm yonent bi ak sa bàkkaar lu bari bëri bëri Seydina Ali nee na li lil ibaadi si wal firdawsi manzilatun wa in xafu xafwatan fa rabbu gaffaaru mu ne doomu aadama yi amuñu wàccukaay jaami yàlla yi gëm yent yàlla muhammad amuñu wàccukaay lu dul firdaws ñu ne suñ juumee mu ne wa in xafu xafwatan donte juum nañ fa rabbu xafaaru yàlla da leen di jéggal kon li ma foofu li muy firi mooy balaa moo laaj bàkkaaru xeetu muhammad tegu ci ndoddoom dafa am lu mu njëkk a laaj mooy mu bokk ci axasil xaasa ci tariqa tijaaniya kon foofa soo fa bokkee dooto dugg safara ak loo mën a gàddu ci bàkkaar dootoo dugg safara kon ñaar rek soo ko amee da ngay dugg ajana mooy at tawhid wa hubbu rasulillah ak tawhid mooy wéetal yàlla wa hubbu rasulillahi ak bëgg yonent yàlla muhammad moo taxoon Abdul Hamid di wax ya rabbi hazi zunubi fi lwara kasurat wa laysa li amalun fi lhashri yunjini wa qad ataytuka bitawhidi yashabuhu hubbu nnabiyi wa hadha alqadru yakfini mu ne ya rabbi yow yàlla hazi zunubi fi lwara kasurat sama bàkkaar a ngi ni fees dell ci réew mi ci adduna bi ah aw ma lenn loo xam ne daf may muccal bésu pencum yàlla waaye waqat ataytu ko ñëw naa ci yow bi tawhid yi ànd ak tawhid tawhid mooy wéetal yàlla yashabuhu ànd nag tawhid gi hubbu nabi bëgg yonti yàlla muhammad tawhid wa hubbu rasulillah mu ne wa hadha al qadru yakfini lii doy na ma ku indi ñaar yi bésu pencum yàlla da nga dugg àjjana kon moo tax mu laaj bàyyi loolu bàyyi warlul ko loolu bàyyi warlul ko bàyyi nee ne am na lu ñu waxtaan ci guddi gi maag Cherif Abdullahi wala Haaj loo xam ne laa yuktabu fil awraaqi wala yunzaru bil ahdaar kenn mënu ko bind ci fooy kenn encore mënu ko xool ci bët kenn du ko bind ci fooy kenn du ko xool ci ci bët faydu gi nag ñii wootu nañ ko waaye ndekete lancement la woon ci borom faydu gi su ñëwee faydu gi daanu ci Baay Ñas gis ngeen la xew-xew wala pa cheikhu min al marara maa lam yulaaqihi ahadun min assaada bàyyi dajeeg jafe-jafe bi faydu bi daanoo bokk na ci jafe-jafe yooyu mooy gaa yooyu nga xam ne mutanabbi ne woon na in yasma'u sub aaru biha farahan minni wa ma sami'u min saalihin dafanu summun iza zuk summun iza sami'u xayran zukirtu bihi wa in wa in zukirtu bi xay summun iza sami'u xayran zukirtu bihi wa in zukirtu bi suwin indahum adinu mu ne benn baay dafa janoog jafe-jafe bi fay dugi daanoo yan jafe-jafe mooy jafe-jafe yeeyi waa shaa'ir ba di wax ne ah maa ngi dëkk ñoo xam ne eh, in yasma'u subbatan suñ déggee ci man lu ñaaw taaru biha farahan ñu tasaare ko ci saasi wa ma sami'u min saalihin dafanu lépp luñ dégg ci lu baax suul ko bëggoon nañ fay fay dëgg ba kenn dootu ko dégg bàyyi ne naam awqadu naaran li harbi wa mihnati wa atfaaha al mawla biduni kalaami naam gaa yi de awqadu taaloon nañ naaran safara li harbi ngir bëgg a xeex ak man wa mihnati nattuma waaye wa atfaaha al mawla yàlla fay na safara gi biduni kalaami ci lu dul wax kon bàyyi jàkkaarloog ay jafe-jafe yoo xam ne mooy la lam defoon ca lettre ba Seydi Ali Cissé bind na baay lettre boobu xëy na dafa am ay liggéey yum gisoon ci kër Cheikh Ibrahim bi noon yi suul ko foofu bàyyi ngi tukki mu bind ko lettre ca tukki ga nag mu koy wan ne daal na wu ndax gaa yi tooguñu tëdduñu nelawuñ waaye booba xamuñ kañ la ñuy jëflanteel Baye Niass radiyallahu anhu ne gis lettre bi liir ko bindaat Seydi Ali Cissé lettre pour dalal xelam mu ne ko waqaftu alal maknuni wa inni samitu min lisani man la yantiqu anil hawa an laa yadurrani maxluqun kainan man kaana wa inni utitu umran atwala min umri walidi wa lawla anni muraadu llahi fala uhibuhu lima fi hadihi daari min alkadurat wa ubashirukum an laa yaqa illa ma tuhibbuuna wa tardawna fa inna hadihi alfaydata faydatun tijaniyatun satanbasidu fi lardi wa taummu jamia alafaq faman arada an yunaffira annaasa anha innama yunaffiru annaasa anhu la anha wa salaam alhaji ibrahima ñesel kawlaxi bàyyi ne gis naa lettre bi waaye maa ngi la yëgal yow ali Seydi Ali Cissé dégg naa ci làmmeñu ku dul wax ci bànneexu ba kanam yaakaaruma kenn kooku la kooku kenn la ku dul yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne dégg naa ci làmmeñu yonti yàlla muhammad an laa yadurrani an laa yadurrani kenn du ma lor maxluukun ku yàlla sàkk kaayinan man kaan ak kum mën a doon an laa yadurrani maxluukun kaayinan man kaan te yàlla jox na ma dund sax gu ëpp gu mu jox sama papa waaye su nekkul woon loolooy ndogalug yàlla du ma ko nangu ndax këru adduna dafa métti dafa neex waaye maa ngi leen di bégal an laa yaqaa dara du fi jot dara du fi rot illa ma tuhibbuuna wa tardawna lu dul li ngeen bëgg gërëm ci wa inna haazil fayda faydu gi faydatun tijaaniyatun fayda ak cheikhu tijaan la sa tanbasidu fil ardi dana tasaaroo ci suuf wata ummu jeexal jamial afaqi mboolem xeet yi fa man arada an yunaffira annaasa anha képp ko bëgg a dàq nit ñi ci faydu gi innama yunaffiru nnaasa anhu la anha yaa ngi dàq nit ñi ci yow waaye dàqoo leen ci faydu gi ndax lum yàgg-yàgg danañ ñëw xeñtu ji lan mooy faydu lan mooy xam yàlla te boobaa danañ xam mooy yabnal kiraami ala kathira ma qad haddasuuka fa ma ra in ka man samia yow doom ju baax ji ñëwal fexe gestu la nga dégg ñu koy wax ndax ku dégg ak ku gis bokkul ñëwal fexe bokk ca ña gis bokk ca ña mos pour nga njëriñu waaye bul toog fee di wax mbir mi du dégg kon da nga yàgg wax du dégg te doo xam luy dégg ñoo ngi jéggulu ci liñ guddal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum alhamdulillah alhamdulillah